الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأمي الْمُرْسَلِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لا إله إلا الله محمد رسول الله yaa man ña xel di daj Sëriñ Babacar mu baax mi ñun ñoo ngi siyaare gafar nga waa Gambia digil nga waa Sénégal dégloo nga ñun siyaare déglu leen déglu leen. Elimane waxal ñoom ñu toog. déglu leen déglu leen. alhamdulilahi rabbil alamin ala Serigne Babacar mu baax mi ñun ñoo ni lay siyaare defar nga waa Gambia si kii nga ñu Sénégal déglu nga Cheikh Tidiane ñun ñoo ni lay siyaare waaw maa ngi waaw maa lay dégg taw la alhamdulilah. dégloo leen. waaw waaw. waa Medina laaj Babou Ndao ñëw nañ ngeen dégloo ñu joxe seen i kàddu ñu ne ngeen ñu rabbil alamin mu ñu ngi santaat yàlla bu baax a baax loolu ko santoon mu di julli ci sangam sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi mu ne mi ngi leen di nuyu yéen ñëpp. di jiital ci nuyoo bi ki tax ñu daje. di jiital ci nuyoo bi ki tax ñu daje fi. de sunu xarit. mu ne di sunu xarit. de sunu mbokk. de sunu mbokk. ci côté bu ne nag. mu ne ci côté bu nekk ci la nekk sunu mbokk di sunu xarit. ci wàllu yaay wàllu baay. mu ne ci wàllu yaay ci ak ci wàllu baay. mooy sama nijaay. mooy nijaayam. alxaaji Aboubacrine Diané. nga xam ni. mu ne mi nga xam ne. jata jataay bii tey. mu ne jataay bii tey. meññantam la. meññantam la. moo ko meññi. mu ne moo ko meññi. moo ko law. moo ko law. moo ko jiwu. moo ko ji. ci yitteem. ci yitteem. ak bëgg lu baax. ak bëggam lu baax. ak am ñu mu ne ak itam am ñu mu roy. ñuy kilifaam. muy ñuy ay kilifaam. mu fekk leen ci yàlla. mu fekk leen ci yàlla. ak yonent bi ak yonent bi. ak Seydi Ahmad Tidiane. mu teg tànkam mu teg tànkam fa mu tegoon ay tànkam rek fa lañ fa la teg tànkam fa ñooñu tegoon seen tànk fa la teg tànk moom sëñ Babacar Diané. mu ne kon lii sëñ Babacar Diané yaa waral lii lépp. mu ne ñu ngi lay nuyu bu baax. mu ne ci ndigalal xalifa. alhaaji Mouhamadou Lamine Ndaw mu ne dem nañ ba ca moom sukk ci kanamam mu ne niñ sukkee ci sa kanam léegi tàggu ko ko mu ñaanal ñu ñu ñëw mu yóbbante mu yóbbante santam santam ak ngërëmam ak ngërëmam ak ci bis bi boobu mu ne kontaante bu xalifa alhaaji Mouhamadou Lamine Ndaw boobu mu kontaan mu ne boobu mu moo famille ba yëpp ñoo ko bokk kontaan ñoo ko kontaan njabootu alhaaji baabu ndaw mu njabootu Cheikh Seydi alhaaji baabu ndaw ñoo toog nii mu ne ñoo toog nii gis nga leen bu baax mu gis nga leen bu baax kenn desul mu ne kenn desul li ko waral nag mu ne li ko waral nag waa dëkk bi teew nañ mu a waa dëkk ba itam teew nañ nag ak dëkk yi ñu wër ak dëkk yi ñu wër ànd nañ ak ñoom ànd nañ ak ñoom ñëw fii li ko waral nag mu ne li ko waral nag dafay ndam boo xam mu ne dafay ndam loo xam ne dañ la ko dañ la ko yéene xam nga nit dana am ndam nga ñàkk koo yéene. mu ne xam nga nit dana am ndam nga ñàkk ko yéene ndam la. waaye sa ndam lii. waaye sëñ Babacar Diagne sa ndam lii. buñ ko multiplié buñ ko yokkoon. mu ne buñ ko yokkoon. de ko ful de ko ful. ba mu mat milliards yi yoon. ba mu mat milliards yi yoon. yéene nañ la lu ko. mu ne yéene nañ la lu ko ëpp. ndax xam gi xam yaay kan. mu ne ndax xam gi xam yaay kan. lii lim la jaraloon mu ne ak lii lim la jaraloon. fi nga jaar ba am lii. mu ne fi nga jaar ba am ndam lu rëy lii. ku fa jaar takk ban mu ne ku fa jaar rek takk ban wallaay ndeysaan ñu ngi lay nuyu bu baax mu ne ñu ngi lay nuyu bu baax ak ñi ma ñëpp mu ne moom ñi mu àndal ñëpp dana siyaara mu ne ñu ngi lay siyaara di wax yal na sax mu ne di wax jataay bi yal na sax yal na yàgg yal na yàgg ci barke bi yonentu yàlla Muhammad ci barke bi yonentu nañ bu baax mu ne ñun bu baax xam na mu ne ci loo xam ne yàlla rek lañ cee liggéey bu rafet Euh, maa ngi ànd ak Baye Mor Dieng te génn. mu ne mu ngi ànd ak suñu Baye Mor Dieng te génn pël. ak yeneen i nit. mu ne ak yeneen i nit. mi ngi ànd a moom mu a ànd ak ñoom comme ni xalifa alaaji moo jaane toogee Mahiri jaane toogee di xalifa alaaji moo jaane ak ñi mu àndal waa Mbène Juma mu ne ñu ñëpp ñoo pas-pas te yow fii ci kanam teew ci sa kanam teew ci sa kanam da la ndokkel da la ndokkel da la santale da nga mu ne óor nañu ne nga yàlla óor nañu ne gërëm nga yàlla mu ne na la lam yu bare mu la ay ndomba tànk yu bari. li may rëy rëy rëy. mu ne lii lu may rëy rëy rëy. bis bii mu ne bis bii. xam nañ ne li nga nëbb moom nga nëbb ko ëpp fuuf. mu ne yàlla ne noonu lay mayee. mu ne yàlla ne noonu lay mayee. balaa mu laa may saahir. balaa mu laa may saahir. dana la yéen ci la nga xam ne. bu saahir ba ñëwee. bu saahir ba ñëwee. da nga ko dund te doo ko yëg. mu ne kon jërëjëf jaane ngodi ba nuyu nañu la siyaare nañu la weerante wuñu ne xalifa bi yonent yàlla mu ne weerante wuñu ne xalifa bi yonent yàlla Muhammad nga mu ne weerante wuñu ne xalifa bi Cheikh Ahmadou Tidiane Chérif nga mu ne loolu lañ ndax nit fa may toll mu na ndax nit danay toll foo xam ne sëriñ sëriñ masalaa lay doon ci yow rek ak sa mbaax ak sa mbaax ak sa mat ak sa mat ak sa dal ak sa ak sa dal ak sa dal kon jërëjëf mu ne kon jërëjëf Diané siyaare nañu la siyaare nañu la nañu nañu la jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah hmm. waaw waaleykum salaam wa rahmatullah sëriñ bi ñu ngi lay delloo nuyoo di laaj ñu sëriñ bi laaj ñu ñi fi nekk nan mën a jël baxray bi wala baxraa bi min baxril xalli yi hafidun min fof min fofadi mam alaji mouhamad diagne mu ngi ni toog sañi jaay sa taalibe mu ngi ni toog muy simmi yi wala yéen a bokk turandoo muy alaji babacar diagne te kaccot alaji mouhamad diagne toog te démb mooy tey dara soppeeku ñu ngi lay ndokkel di la mastawu coono ci tàngoor bi at ci nga teg sëriñ bi mboolem kuy soppe xam na ko kuy taalibe xam na ko sa bëgg gi nga bëgg Seexu Tijaan ak liggéeyal gi nga liggéeyal tariixa loolu yëpp xam nañ ko ñu ngi sant yàlla waaye ñu ngi lay seedeel ne li nga wax ne xalifa la ci xalifa yonentu yàlla Muhammad boo ko waxee nag ka xamut xam kii daay dana xam ne ne nu mu waxee dara nekkut fi lu ma yonentu yàlla Muhammad dara dara rawatina koo xam ne dafa wéet gannaawam gi ci sutna ala darbu sa biir nga xam ne mu ngi teg tànkam ci sutna léegi comme naaj wi dafa tànk ñaari programme moo fi amoon dañ doon teg xeer fii xeeru daara su préfet romb na kët saa dégg yooyu dara soppeeku na nga taxawee woon jumaa ji te sëriñ bi nee na ba tey noonu rek la daraa ci yaa di teg xeer wi yaa di taxawee jumaa ji nii la sëriñ bi tënkee mbiram te nii la nangoo ak taalibeem loolu roy la ci ñun ñëpp lii daal mooy kàddu yi mbooloo maa nga taxaw di ñu xaar sama nijaay ngi ñuy toog ñu jóg ñu dem jël tegam xeer bi nga tegal ñu xala leen yoon sëriñ bi jóg lay lay lay

Thank you. alaaji Aliou Diané Noor nga di wane ne asalaamaaleykum wa rahmatulah. di gàttal kàddu yi. nee na mi ngi gàttal kàddu yi. di kilifa yi fi teew. di kilifa yi nga xam ne ñoo fi teew. di gërëm bu baax nag. di gërëm bu baax nag. monsieur le maire. monsieur le maire. di maire Médinatoul Salam. di maire Médinatoul Salam. jox ma honneur. nee na jox ko honneur. man mi nga xam ne maay maire. moom mi nga xam ne mooy maire commune Kay. nekk directeur de l' habitat social. nee na nekk directeur de l' habitat social. waaye dafa xam ne nag. waaye dafa xam ne nag. fii tamit sama kër la. fii tamit këram la. mu joxe cër bi. mu jox ko cër bi. ñu ngi koy gërëm bu baax di ko sant. nee na mu ngi lay gërëm baax di la sant. di bég bu baax nag ci bés bii. di bég bu baax nag ci bés bii. ndax fii ñuy defee lii. ndax fii ñuy tegee xeer wii. ñu ko mérito lañ. ñu ko mérito lañ. ndax xam nañ seen liggéey. ndax xam nañ seen liggéey. ci lislaam ci lislaam ak ci tarixa tijaan yi. ak ci tarixa Mawlana Cheikh Tidiane. di ñaanal kilifa yi teew yëpp. muy ñaanal kilifa yi teew yëpp. fan wu gudd. amiin yaa rabbi ak wér yaram. amiin yaa rabbi yaram. def ci njaboot gi tamit. amiin yaa rabbi tamit. tey moom taarix dina ko retenir. nee na tey taarix dina ko retenir. l'histoire retiendra. l'histoire retiendra histoire dina jàpp ne. nee na histoire dina jàpp ne. ci kanam sunu baay sunu kilifa baay Babacar Diané. ci kanam ci kanam sunu baay sunu kilifa baay El Hadj Babacar Diané. ci kanam porte parole baay El Hadj Babou Ndaw. nee na ci kanam porte parole baay El Hadj Babou Ndaw. muy Seydi Aboubacar Ndaw di borom xam-xam bu mag. nee na Seydi Aboubacar di Oustaz Ndaw di borom xam-xam bu mag. ci kanam xalifa. duñu benn juma. ci kanam xalifu Mahiri Diané xalifu alaaji moo Diané bu benn juma. ci kanam sunu baay maa aji Diané. ci kanam sunu baay sunu rakku sëñ Babacar moom aji Saloum Diané. ci kanam njabootu Baye Ndiol Diané nga xam ne moo njaboote lépp luy Touba. nee na ci kanam njabootu Baye Ndiol Diané nga xam ne moo njabootu lépp lu nekk Touba. ñu def délégation bu rëy. ñu def délégation bu rëy. ci njiital. ci njiital ki ki fi teewal madame la ministre. nee na ki fi teewal madame la ministre. di doomu Baye Ndiol Diané. di doomu Baye Ndiol Diané. ci kanam ñoo ñëpp nag. ci kanam ñoo ñëpp nag ak ci kanam sous bi nga xam ne mu ci yoon di ñëw ak kanam mu ngi ci yoon di am yéene bi nee ci njiital monsieur le maire mii nga am yéene bi ñu ngi ñaan yàlla ñu ngi ñaan def pose première pierre bi nee na pierre bi mu nekk université islamique nee ba mu nekk université islamique loolu mooy suñu objectif nee loolu daal mooy yéene moo seen yéene ñu ngi sant yàlla bu baax nag ñu ngi sant yàlla bu baax ci ci gox bi bi ñu amee maire boo xam ne ci l'islam lay yëngatu nag ñu leen koy gën a dénk nag ñu leen koy gën a dénk nag Baye Babacar Baye Babacar sëñ Babacar sëñ Babacar Baye leen di dénk bu baax suñu monsieur le maire mii ñu leen am yitte la ku am yitte naa ci dara moom xam na ci dara suba ngoon guddeeg bëccëg suba ngoon ak guddeeg bëccëg ci luy avancé commune bi rek lépp luy avancé commune bi lu ci loolu la nekk ñu ngi sant yàlla bu baax ñu ngi sant yàlla bu baax nag di gërëm ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah mbooloo mi sa Abibakar Ndaw nee na salaamaaleykum wa ngi nuyu sang yi fi teew yëpp. mu ne mi ngi nuyu sang yi bi. mu ne di bi. sang suñu kilifa. mu ne kilifa. xarit suñu lépp. mu ne suñu xarit suñu lépp. suñu mbokk taalibe. suñu mbokk taalibe. ci alaasi baabu ndaw. ci alaasi ndaw. mu ne ak maire yi fi daje ñëpp sëñ Aliou Diané. Serigne Seck. mënuma tudd mu ne man tudd kilifa yu teew waaye ñëpp gis nañ leen. mais jël nañ néew bi teg ko ci sang bi. waaye jël nañ néew bi teg ko ci sang bii tey. pour mu jotaleel ma ko ñëpp. pour mu ko ko ñëpp. naaj ñi ma àndal. moom ñi mu àndal ñëpp. ci waa Medina Saraba. ci waa Medina Cheikh Seydi Alhaji Babou Ndaw. ak dëkk yi ñu wër yëpp. ci xewal gi nga xam ne ci xewal gi nga xam ne. xewal gënu ko rëy xewal gënu ko rëy ci adduna bi. ndax adduna li fi ëpp solo. mu ne adduna li fi ëpp solo. mooy fi ñuy jaamoo yàlla. mooy fi ñuy jaamoo yàlla. ak fi ñuy jàngee yàlla ak fi ñuy jàngee yàlla. islam bi mu ñëwee ci Afrique. mu ne islam bi mu ñëwee ci Afrique. ñaari école la fi tabaxoon. mu ne ñaari école la fi tabaxoon. fële ca ca ca ca Ouagadougou. mu ne fële ca Ouagadougou. benn école bi. mu ne benn école bi. école lan la woon. école lan la woon. alquran la woon alquran la woon. benn école bi benn école bi. école hadis la woon kon mooy mooy jaamukaay yàlla. mu ne mooy jaamukaay yàlla. ak fu ñuy jàngee ak fu ñuy jàngee. addis booba jamono mu ne addis booba jamono. gannaaw gannaaw alquran tasaaroo gu ci adduna bi gannaaw alquran tasaaroo gu ci adduna bi. dañ koy mokkal kenn du ko bind. dañ koy mokkal kenn du bind addis. Ibou Ndaw mu alaaji Aliou Ndaw cënguy ñëw na léegi mu ne Ibou Ndaw mu alaaji Aliou Ndaw cënguy ñëw na léegi. mu àndal ñëpp. kon tey mu ne kon tey. mu ne ñuy a heure école mooy a bu dund islam bu àndul ak jàkka mu ne islam bu ànd ak jàkka àndul ak école àndul ak école boobu islam doo ko mu ne boobu islam fa dara signature baa ngi mu ne signature baa ngi nii nag jàkka ji jàkka ji mooy kayit bi mooy kayit bi signature bi mooy école ñu ngi gërëm mu ne kon ñu ngi gërëm bu baax borom yitte bu rëy borom yitte bu rëy bii fa tabarakallahu ahsanul xaaliqiin dañ ne day bët bu tuuti baaxul mu ne dañ ne bët bu tuuti baaxul waaye kon na fekk muy ci yàlla mu ne waaye na fekk kon muy ci yàlla bu dul yàlla jaru ko mu ne bu dul yàlla jarut ko waaye bu dee yàlla ëpp na ko mu ne bu dee yàlla nag ëpp na ko sëñ bi lii ñu koy sëñ sëñ Baba Kadiane sëriñ bi nee na ñu ngi lay ndokkeel ci lii aaya bi wadd sama xol mu ne aaya bi wadd ci xolam bi ma taxawee ba léegi mu ne bi mu taxawee ba léegi wa exidar Ibrahima sawahida mooy ba yonent yàlla Ibrahima. mu ne ba yonent yàlla Ibrahima. mooy Ismaël. mooy Ismaël. dara takka baga dara takka baga. mooy waddi fii ci mooy waddi fii ci xolam boobu ba léegi. yàlla xam na mu ne yàlla xam na ko. bés booba ba mu ne bés booba. mooy bii rek mooy bii rek. bii bii xalifa la xalifa la ca bis booba tey tey ci saahir ci saahir ak ci baatin ak ci baatin buñ ñu ko yëgee buñ ko yëgee buñ ko yëgul buñ ko yëgul njabootu Ibrahima njabootu Ibrahima ànd nañ ànd nañ ak njabootu ak njabootu yonent yàlla Muhammad teew fii teew fii tey su fi ñu rëddee place bi kon ñu ngi sant yàlla kon ñu ngi sant yàlla da ko tënk da ko tënk da ko yemale da ko yemale foofu kon ñu jublu ci liggéey bi am na kenn ku yëkkati mu ne bu rek am na kenn ku yëkkati kàddu kon bismillah keroog ba ñuy sanc dëkk bii sëriñ bi nee na keroog bi ñuy sanc dëkk bii man foofu laa di waxee mu ne moom foofu lay waxee mu daam sekk bàyyi Modou Seck mii mu daam sekk bàyyi Modou Seck mii man la fi xebal ñu délibéré dëkk bii mu ne moom la fi xebal dëkk bii maa maali jang ca njangeen maali jang ca njangeen ñoo délibéré dëkk bii ñoo délibéré dëkk bii ba keroog bis bi biñ fi mujjee ñëw ba keroog bis biñ fi mujjee ñëw keroog ba ñuy rëdd dëkk bi keroog bi ñuy dëkk bi ba ñëwee bay sulee sekk moo ne ma ñu naan wax bi ñu wane penc mooy mooy bi ñu ne ba ci ko wan ma penc mi. sëñ ko wan ma penc mi. ndax coow li bëri woon lool. mu ko ndax coow li bëri woon na lool. lu ñu wax wax kilifa yi naan bàyyi la ba ñu dem ko doon ci lu ñu wax rek ñu ne dëkk bi danañ nañ ko def ci tey. sëñ bi ne leen may leen ma rek maa ngi ñaan suñu borom sëñ bi ne ko may leen ma rek maa ngi ñaan sama borom ñi muy ñaan suñu borom ba suñu borom nangul mu ne muy ñaan yàlla di ñaan yàlla ba yàlla nangul ko mu ne ko sëñ bi may naa leen li nga bëgg mu ne ko sëñ bi may naa la li nga bëgg mu ne mu ne ko bay sule may wan ma teen bi wan ma penc mi mu ne ko bay sule wan ma penc mi mu xànd ak mbooloo ba sori mu xànd ak mbooloo ba sori mu teeq ma ngëb ma ci loxo mu teeq ngëb ko ci loxo na mbooloo mi taxaw neen mu xànd ak man maag moom ba ci biir gajj ba mu ne mu xànd ñoom ñaar ba ci biir gajj ba taxawal fii mu ne ko taxawal fii ma taxaw mu ñëw ne ma mu ñëw ne ko mu dem ba sori mu dem ba sori ba gis penc ma ba gis penc ma dëkk ba jege ma xool ma dëkk ba jege xoo ko ne ma kaay xool ma mbooloo mi ñu ñëw ne ko xool mbooloo mi ñu ñëw xool mbooloo mi ñu ñëw xool mbooloo mi ñu ñëw bañ dikkee ci dimb gi mooy penc mi mu ne bi ñëwee ba ci dimb gi waxoon ne mooy penc mi bañ ko maam aji ba mu ko gisee maam aji ba mu ko gisee mu ne dimb gi bañ ko ko wanete mën na ñetti at mu ne dimb gi bañ ko ko wanete mën na ñetti at tey la ko door a gis tey la ko doog a gis wër na xaalis ba tey waaye mënu ko mu ne wër na xaalis ba tey waaye mu ngi doog a dimb gi fekk waxoon nañ ko dimb gi ni melee fekk waxoon nañ ko dimb gi ni melee moo xam na xam-xam yëpp benn la moo xam na xam-xam yëpp benn la bañ toogee ci penc mi ba ñaan ba pare mu ne bañ toogee ci penc ba ñaan ba pare ko bay sule waññi waññi teen bi mu ko bay sule teen bi mu dellu wër wër ba sori mu wër wër ba dikk ne teen baa ngi nii dikk ne teen baa ngi nii ñaari janj la ba fare walla ko góor ga noonu na ñaari janj la janj ba walla ak a a ngi ci digg janj ba xippa xippa digg ba teen ba ñu xippa di ko keroog bi togg na jën mu ñu dindi pakk ba teen baa ngi ci digg eh, teen baa ngi ci pax ma ñu góor gi indi boolab jën bu mu toggoon ne góor gi toog am lum jën bu mu toggoon ñu taaj ko ci digg janj ba ñu taaj ko ci digg janj ba lekkee ko fa lekkee ko fa xëppi teen ba keroog teen ba keroog bay daam soxna bàyyi Modou Seck mii mu ne bàyyi soxna bàyyi Modou Seck mii dana dem leen jëli ciment andi ko dem leen jëli ciment andi ko ñu ñaari sarse ciment andi ko ñu ñaari sarse ciment andi ko fii dañ bi dañ ko sanc tey teen bi dañ ko gas ba mu bënn bi dañ ko gas ba mu bënn du ci xokku kenn du ci xokku kenn du ci gaañu kenn du ci gaañu man seede naa ko mu ne lii seede na ni tey loolu loo xam ne ñaan gën a doon ñaan ñaan gi doon ñaan na man de wax lu wax na xam wax la doon wax mu ne. wallaay ñetti de classe a doon. mu ne lépp mu ngi nekk fukki million ak ñaar. incha allah.

92 li mu Mouhamad la bëgg def ci daara. alhamdulilah maa rasa am. yàlla li mu Mouhamad la bëgg def ci daara. alhamdulilah waaw li mu Mouhamad la bëgg am ci daara. yàlla yàlla defal lu ëpp loolu. yàlla yàlla defal lu ëpp loolu. alhamdulilah. mën nga mën nga sëñ Babacar ñëwee xaar ma jàll ma jàll ma jàll loolu waaw. sëñ bi may leen da ngeen yéen a ngi xam ngeen bàyyi xel yéen kii yi. waaw xoolal sëñ baa ngi sa ginnaaw di toog. waaw. billahi la si leen am. allah waaw mayal xel sëñ bi. may leen waaw may leen kii te yàlla tax. waaw yéen ñii photo waaw. waaw sëñ bi bàyyi leen ma ah waay lan la. koo gisee wax kii kii kii mooy bàyyi kii. imam waaw xam nañ ci waaw xam nañ ci waaw. juma. amaloon ngeen ko waxtu. waaw waaye dañ bëgg nag ngeen yokkal ñu waxtu wi tey. waaw parce que temps bi dafa gàtt. dëgg la. te jant bi yàgg na. dëgg la. ci si ci si yaa añaguñ. dëgg la dañ bëgg añ. dëgg la. li ma ciy sànni tuuti rek maire. yaag ñi nga àndat yëpp. Sëriñ Seck jërëjëf. ci taarix bi nga tudd kii nee na 92 la bëgg a def ci daara. lañ ci am waaye yal na yàlla def mu ëpp loola. amiin amiin. nopp moom ak borom. Mhm. xalifatu Cheikh Ibrahima Niass. Mhm. bi nga xamee ne mu ngi bëgg a jéeg jëm ca yàlla. Mhm. di liggéeyal maam xalifatu Seydi Mouhamad Niass. dafa liggéey dafa liggéey ba mu mu dem duy paan ak suuf di ko jox ko maam kalifa ne ko maam Khalifa dama bëgg nga ñaanal ma sama taale bi yem ni lii macha allah maam Khalifa ne ko eh, Ibrahima Niass mu ne ko yaa tuuti xol wallahi yaa tuuti xol sa taale bi xajuñ fii wallahi xajuñ fii Niass waaye yow yaa tuuti xol alhamdulilah 92 juróom-ñeent fukk ñaar xanaa bëggoon na quatrième mandat. quatrième mandat lu ne xëy na ci. yaakaar naa loolu tabaakaar naa. li ñu ci bëggee kontaanee mooy li nga tëb dal ci daara. yaakaar naa ne waxtaan nañ ci ab diit. maag yow may suma méttiitu xol yëpp. mooy daara yi dañ leen jox gannaaw. te lislaam mënta taxaw te daara amut. waaye jamono ta dox te daara amut. amul kon bu fekkee jël nga sa tànk teg fii. macha allah te defee ko fi nga war a defee. ñe doom ñaar rek.

ah ñaari Babacar jërëjëf Babacar yi ni bon. jërëjëf waaw ah, su ma ne sëñ Babacar rek. Ah. waaw waaw téléphone bi dafa na ci kanam. sànni. waaw mooy ne. góor gi de nax na ma. waaw waaye may nag dem naa kër. waaw Modou mii. maa yaayoo bokk ndee ak bay. alhamdulilah rabbil alamin suma kër a bàyyi ko dari jàpp. alhamdulilah rabbil fay na borom. alhamdulilah rabbil alamin mu ma tabaxal jàkka joo xam ne. Mhm. di tax ma ne góor gi ndax na ma de. Mhm. mooy jàngukaay. <laughs> waaw nit balaa dugg si jàkka ak juma. fa jàng waaye mu ma tabaxal jàkka joo xam ne. alhamdulilah ki démb rek. la fa sëñ Ousmane tam ma tëjee maa ñëw seet si. jàkka ju mucc ayib. alhamdulilah rabbil yaataay bi daal fooguñ ko woon. macha allah macha allah alhamdulilah baraka allah kon ñu ngi sant yàlla. jërëjëf jërëjëf ñu ko ñaanal yàlla yëpp. macha allah macha allah yokk ba yëpp. amiin mbiram nag ci sëñ bi lii. am naa lu ma si xam lu bëri. alhamdulilah am naa lu ma si xam lu bëri. alhamdulilah loo xam ne moom dénkoo naa ko. waaw maa ngi ko gën a dénkaat. yal na yàlla jàppale ko. musal ko ci làmmiñ. musal ko ci bët boo waay. ak lam waay. jot ko li bëgg waay. ak safara sa waay. lam lay waay. kii nii yal na yàlla yëkkati ko. amiin amiin amiin amiin jërëjëf. waaw kon bisimilah. aywa. amiin yaa ngi leen ñaan. amiin waaye le préfet ñëw na. waaw préfet ñëw na. waaw bisimilah waaw préfet ñëw na bisimilah. mu ne préfet ñëw na bisimilah. آمين آمين آمين آمين آمين كلها فانظر بي خلق سيدنا خلق سيدنا سيدنا وقبر من سيدنا فاسع خلق سيدنا طويلا خلاص يا يا من أسر جميلة وستر القبيحة ولم يؤخذ باليد ولم يحتسب يا حسيمانها تجاوز يا غسل أمبرة ويا باسط يديه ويا سامي كل نجوى ويا من كل سواد ويا كريم الصفي ويا حسيم المني ويا مقر حسرات يا مبتدئ من سخاطها ويا خيط قبتنا يا اللهم صل على سيدنا والقاتل والقاتل

Ah, wow, gendarmerie waaw bismillah xamante jémme euh, suñu xarit la bu baax la. kon nag maa Moussa Diagne la daal di tudd. waaw Moussa Diagne la baax na. waaw ñu ngi lay laaj. waaw waaw ñu ngi lay laaj ñu ngi bokk rek bay. waaw jërëjëf. bisimilah jërëjëf. baax na baax na gàmm gàmm. fekk fekk daa ko. waaw waaw waaw.

li ñu tax a daje ñun ñëpp ñu xam ko nag mooy ubbi néeg bii nga xam ne moom la ñu tuddee jumaa te muy lenn ci diine lislaam loo xam ne suñu borom subhanahu wa taala moo ko farataal jox ko yonent bi sallallahu mu baaxe ko jullit ñi jàng nañ ci siira ñun ñëpp ne juma lislaam ñëw na ba am fukki at ak ñett mu soog a ñëw ndax jàng nañu ne keroog bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógee màkka di dem madina ci ndigalu boromam ba mu demee ba nga xam ne dëkkmal na madina madinatul munawwar ba mu àggee ca banu awf ibnu xunm askan woowu mu jaaroon ba mu séenee madina nga xam ne dara doxul diggante ak madina lu dul ñaari kilomètre te bu doon tey ci biir madina ngay wax ca la ko yàlla dabak ndigal te mooy suñ borom subhanahu wa taala moo dogal ci moom wàcce ci moom jumaa muy ba mu fanaanee ca banu awf boobu ba bët set guddi alxames la guddi àjjuma la maanaam guddi alxames la fa fanaan bët set di àjjuma mu war faa xëyee nag dëgmal madina ba mu xëyee ànd ak ñi ko yàlla booleel ndigal la wàcc jógee ca boromam te moom bu ndigal jógee ci boromam mooy jëfee ko léegi lay def ca la taxaw ak mbooloo moom ànd toon ca roon garab ga xam ne ne yàlla wàcce na ci moom ndigalal jumaa fa la taxaw wax ak mbooloo ma ci ndigal li ko yàlla jox keroog la kut ba kut baam gu siiw ga te mooy ba muy wax ne yaa ayuha nnaas inna allaha qad farada alaykum aljumaa fi maqaami hada min yawmi hada fi shahri hada min aami hada ila yawmi alqiyaama mu tegtaane ci làmmiñu yonentam sallallahu alayhi wa sallam te moytu ko woyofal ngir lii yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam bañ mu dab leen yàlla bu mu dal kenn suko defé la tay dimbale doom adama yi ñu bàyyi xel lan mo wutalé ndigalal yàlla suñu borom subhanahu wa taala ak ndigalul doom adama ndax biko yàlla wacce ci yoonte bi tek na ci ñaaxe ci lan ñu yoonte bi yoonte sallallahu alayhi wa sallam neena khayru yawmin talaat alayhi shams yawmul jumaa فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها uxrija na ngeen xam ne bis bi gën ci bis yi mooy bisu aljuma bisu aljuma bii moo gën ci bis yi yàlla di fenkal jant bi mu ne ndax yàlla ci la bind maam aadama alayhi salaam yi abul basar waaye ci la yàlla subhaanahu wa taala dugaloon aadama ca aljana ne ko dëkkee ko waaye ci la yàlla génne woon ci coobareem ci dogalam mu génn a ajjana ci ciobare mom suñu borom subhanahu wa taala yent sallallahu alayhi wasallam tek ci ne man tawadda man tawadda a fa ahsana alwudu summa ata aljumaa fa stamaa wa amsik khufira lahu ma bayna ma baynahu wa bayna aljumaa wa siyadatu salasat ayaam su ko defee mbooloo mi kon ngeen bàyyi xel ci xadis boobu nga xam ne yent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko ngeen dal mbokk yi ñu ngi ñaan ñépp ñu dal nañu dal mbokk yi ngi ñaan mbooloo mi ñu dal ndax jumaa ji benn néeg la te li ko wër yépp ci la bokk te fu waay toog man ngaa julli sàpp bu jokkaloo fii ba Koungheul ci jumaa ji la bu jokkaloo fii ba Banjul ci jumaa ji la ñu ngi ñaan ñépp ñu ànd ak dal te ànd ak xel te xam ne ñu ngi ci jumaa ji te yonent bi nee na képp ku ñëw ci jumaa ji sest boo def bu dul toog dégloo ak teewlu faqat laxaa mooy foye nga sa jumaa perte nga sa yoolu jumaa te yàlla ñu yàlla musal ci loolu nañu dal ñu organiser sàppe yi ñi ci biir nañu bàyyi wax ji ñu organiser sàppe yi ñu sàmmoante ak ormaay jumaa ji mbokk yi dal ñu sàmmante ak ormaay jumaa ji yonent bi sallallahu alayhi wa teg ci ne mbokk yi dal ñu sàmmante ak ormaay jumaa ji gannaaw yàlla indi nañu ba ci béréb bi ñu ñëw fi ngir sàkku tiyaaba bu ñu fi def dara loo xam ne daf ñuy xañ li ñu tax a jóg mbooloo mi fi daje ñëpp xajuñ ci jumaa ji waaye sàppe yi bu jokkaloog jumaa ji fu mu àgg ci réew mi ci jumaa ji la bokk kon nañu leen tey ñu organiser sàppe yi ci biir ba mu jag mu yem ñi ci biti jokkaloo ak sàppe yi ñu joxe jumaa ji yàlla gis na yàlla dégg na kenn ku nekk yàlla xam na sa yéene ñu ngi ñaan loolu mbokk yépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na لينتهين أقواما هل ودع أي الجماعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونوا من الخافلين نينا نيو باي خيل تي جوخه فراتا يالا جي نون ندخ مولو مو خمني ولا كيب كو خامني yow xam nga ne jumaa dafa war nga di ko def ba mu nga bàyyi ngir sàggan yàlla suñu la ko jagleel muy sa njëriñ nga man caa jëriñu soo ca jëriñuwut mu lor la mu mel ni boo ko doon misaal da nga naan kenn ku ci nekk bi la yàlla indi àddina boole na la ak juróomi ginaar juróomi ginaar yooyu yàlla boole leen ak juróomi njafaan juróomi siiru yu leen topp nga xam sa juróom yooyu ñu la jox جروم مغ لن توب تا دنا لن جوت سو كاري فين غا باي سي خيل بو باخا باخا با يونت اختنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شخلك وشبابك قبل هرمك وخناك قبل فقرك تي حديث بو خامني باي حقي مكو صلو ابن عباس مونيك يا ولدي كي فخال با سا nga bàyyi ci xel ndax comme ni ma la ko misaalee mi ngi mel ni juróomi ganaar yooyu yàlla dénk ne la fexeel ba nga jëriñoo ko juróomi siiru taxaw ci seen wet war koo jëriñoo bala bi ci njëkk mooy yonente bi salaay salaam nee na sa dund ba jëfandikoo ko ci li nga xam ne moo lay jëriñ ndax dee an koy dàqate dana ko dab xayaatak qabla sa gi balaa ngay dee li la war taxaw temm def ko te xam ne bés ngi ñëw doo ko ngi ñëw nga war ko ñàkk kon jëfandikoo sa koom ni li lay jëriñ fa yàlla balaa ko ñàkk dox loolu yëpp def na juróom yi képp ku ko yàlla jox naka kaw juróom yi te bakkan bi ci boppam nekk koo xam ne bu mu toll di la fàttali ci li nga nekk kenn ku ci nekk waaye bu mu koy wan fi mu jëm te du ko feeñal daf koy wan te bëgg mu umpale ko an salaamata fiha tarku ma fiha la daara lil mar'i ba'da al mawti yaftunaha illa allati kaana qabla al mawti yabniha إن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر قاب باليها نمن والمدينة من نقم من أدنى بدوكر دكر جمو جمو لدك كفيلة ويترح من لا دار لمن إبا نذكر يا أمن يقول أبيد أمن لا برنترح كنت تبقى بني أبيد أمن بدك وأبيد na foo jógee su ko defee nga na a bàyyi xel nag ci yooyu ndax lenn loo ci xalaat dana am loo ca war a nangu soo xalaatee yow na doomu aadama nga bi nga fi ñëwee yàggul te danga fi jógee soo xalaatee ci loolu ci ngay xamee ki nga doon yow léegi nag boo xamee ki nga doon résultat bi lan la mooy xam sa bopp ndax ku xam sa bopp xam sa borom ku réere sa bopp doo xam sa borom ku ne war ciy bàyyi xel te lu mel lii comme lii ñu tax a daje muy jullit jumaa mbokk yi ñun ñëpp war nañ di ci bàyyi xel occasion la boo xam ne suñ borom subhanahu wa taala moo ñu ko xadoon jullit di semaine bu ne ñu man caa daje benn yoon amee dinañ ca jëriñu waaye yonent bi ne na ngeen xam ne képp koo xam ne fonk nga ko di ko jooxee Juma jumaa diggante ñaari jumaa yi maanaam bi xool ne man waruma def lii def nit ah, bu amul sens ki nga xam ne moom dafa tiit yow nga nangu ne yaa manqué man sa borom maay ki mag sama yaatu seen ak sama yërmande ëpp na sama sañ gannaaw maa ngi yow ñoo ko seq rek amul problème soo desee ci jiw bi rek ma tànn ba nga set ak islam da ci bu màpp lépp loo mën a def ci naka suñu noonu bés boo ci attirante boo reconnaître ne yow mii kat jaamam yàlla nga boo xam ne bu doyati bu juum te xam ne sa bunte borom bi ngay njëkk waaye nag yaa sa mbokk yaa sa mbokk yow nit nga sa maam ak bi nga am ci sa borom loolu la am loolu nga am ci sa borom da ngaa tax sa borom comme ak jaam ca boromam moom it mu am ko ngeen ñaar ngeen bokk nekk samay jaam léegi nag nga manqué ak balaa ngaa ñëw fi man ndax bu ngeen ñëwee ba sama kanam de man yàlla dama naan aja fayante leen rek. respecté leen ñaaray taxaw jaamu yàlla bi nga xam ne liggéeyoon na loo xam ne suñ borom gërëm na ko mu ngi ko yore waaye mi ngi àqi moromam waaye mi ngi taxaw yi yor àqi moromam yàlla na maa ne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 أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاه على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الملك القدوس المعبود ذو الجلال والإكرام الذي جعل المساجد أسرف بقعة على وسع البسيطة ومكانا للمناقشة في الخير ومكانا للمناقشة في الخيرات وتعلي عن الرتائل وتعلي بالفضائل ومحدا للعبادة وللتناجي وتأمل بالصفة العامة حيث يقول الحق سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له بالقل والآصال رجال لا تلهيهم التجارة ولا بيع عن ذكر الله عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب يتتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويسدهم من فضله والله يرزق من يشاء بخير حساب والصلاة والسلام على من بعث ليتمم مكارم الأخلاق وليهدي الخلق إلى ما يرضاه الخالق ذو الحصة والجبروت وعلى من أرسل رحمة للعالمين وهو سيد الكائنات محمد بن عبد الله المثل الأعلى للإنسان الكامل الذي صوره الله في أحسن الصورة ليعلم الناس دينهم فكان هول المعاصرة مع جميع الأديان أقوام الأئمة الفضلاء أيها السادة العلماء والمجيبون لها في دعوة الرباني سماحة سلطة الحكومة السنغالية وغامبيا وأحيان البلدين الشقيقين أيها الأحباء فإلا لشرف وقبت عاصماني نقتنم فرصة ترسين هذا الجامع الدحم المالكي لنتحادث معكم عن أهمية الجوامع أو المساجد في الإسلام ودور الشباب في المحافظة على آسي البقعة المباركة وبعد تشكرات وتصديق موجهة إلى سيد المرموخ صاحب الهمة العالية البحر القدم في الحقيقة والباطن وفي الشريعة الإسلامية الشيخ الهاسي أبي بكر الداني المؤسس لهذه الدولة أبي المدرسة المعنوية بالروحي معا وهو أيضا مؤسس ومرسل هذه القرية فسماها بحين ماد القلب المكتوم أحمد بن محمد الأتجاني الشريف العلمي والديني والتيني وأهيتكم علما أيها المسلمون الأعزاء الذين جاءوا من كل فجر عميق بأن الله سبحانه وتعالى سيبدل ثواب بناء الجامعة أو المسجد هذا بقتل جميل جدا في الجنة ولكل من تشارك في هذه المبادرة الحسنة والعلية ولله الحمد والشكر وأركز في هذه النقطة بالذات أن أول عمل قام بها سيدنا وحبيبنا ونبينا وقرة أعيننا في المدينة المنورة كان بناء المسجد لأنه يحتل أعلى مقامة في المجتمع الإسلامي فهو مكان العبادة وطلب العلم واللقاء المسلمين وإخوة وإخاء انتماء بينهم ولذلك علينا أن نعتقد أن الإسلام لم يسرع الجوامع أو المساجد أو العبادات بكافة صورها بدون إشارة إلى المعنى والمضمون بل إن كل عبادة تحمل في جوهرها قيمة أخلاقية مطلوبة أن تنعكس على سلوك المسلم المؤدي لآتي العبادة وبمجرد الوصول والحضور إليها أمر عظيم يوجب للإنسان المغفرة فإلى من يحتاج المساجد للصلوات والمحافظة على نصافتها وكل ما يتعلق بها لا بد لنا أن نستعد له بالإيمان لقوله سبحانه وتعالى في إطار تعميرها إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ونسر لمكان المساجد في الإسلام لأنها بيوت الله واصرف البقاع على وجه البسيطة أو على وجه الأرض حيث يذكر فيها اسم الله جل جلاله وحث كماله ليلا ونهارا صباحا ومساء فإن المساجد مما تخير أحوال الإنسان من شقاء إلى سعادة ومن ضيق إلى رخاء وقاتة من سلمات إلى نور إسلا نور السماوات والأرض مثل نوره كمسكات فيها مصباح المصباح في السجادة السجادة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد سيتها يديو ولو لم تمسس النار النور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الأمثال ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم ومن المعلوم الجدير بالذكر أيها المسلمون أن المساجد أماكن المنافسة بالخيرات وأماكن تهبب والتدامن وليس للخصومة أو المنافرة والتدابر فيها سبيل وهو خير الأماكن لتربية المسلمين يجتمعون فيها ويقومون في صف واحد ويصلون خلف إمام واحد فلا الفرق بين الملك والخادم والغني والفقير كلهم سواء أمام الله جل وعلا لا يفضل أحد منهم على الآخر إلا بتقوى الله ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة أيها الإخوان وآله الكلام صلواته وتحياته أخوة الإسلام لنعلم جميعا كما قلت آنفا أن أن أجب البقاع في البلدان في جميع البلدان العالم جميعا هي الأماكن المحصنة لعبادة ربي المستحق بالركوع والسجود وهو الله رب العالمين فلذلك يجب علينا الإخوة الكرام ألا ننام الليلة بكاملها ليس قصدي ألا ننام الليلة لكن قصدي أن نعبر أن أعبر أن الإنسان يسعى سعيا أسيسا ويترك أثرا بعد موته فإن اقتنى بأولاده هذا باب وإن اقتنى بإخوانه فباب آخر وإن ترك وإن ترك علما ينتفع بها فباب ثالث وإن بنى مسجدا فتلك هو الباب الرابع وهو منتهى الحياة كمثل هذا المكان الذي هو سبب في استماعنا هذا اليوم هذا المكان الذي فيه كل كل وسائل الراحة والتحدث هؤلاء الذين ساهموا في تأسيسه وبنائه في وفي تأمينه وإنارته حيث آه، حديث صريف وفي نبذة قليلة تبصرهم بأعمالهم هذا والحديث هو عن عن أبي قد عن أبي هند قال حمل تميم الداري معه من الشام إلى المدينة قناديل وسيطا ومقتا فلما انتهى إلى المدينة وافق ذلك اليوم الجمعة فأمر غلاما له يقال له أبو البراد فقام فصد المخت وهو الحبل وغلق القنادل وصب فيها الماء والسيط ودخل فيها الفطلة فلما قربت الشمس أسردها فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسجد فإذا هو يسهل فقال من فعل هذا فقالوا تميم داري يا رسول الله فقال علي وآله الكرام الصلاة والسلام نورت الإسلام نور الله عليك في الدنيا والآخرة أما إنه لو كان لي ابنة لسوتكها فقال له نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب إن لي يا رسول الله ابنة تسمى أم المخيرة بنت نوفل ففعل فيها ما أردت فانكحه إياها على المكان شكرا وتهنيئا له بخدمته الجليلة الهدور الكرام أختم الخطبة بعد الحديث النبوي الذي في كل ذهن أو حقل بإهمال أو إغفال شؤون صلاة الجمعة من حيث يقول عليه الصلاة والسلام أيها الناس توبوا قبل أن تموتوا توبوا قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشكلوا وصلوا على بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم ذكركم لهم وكثرة الصدقة في السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتصبروا واعلموا أن الله قد افترى عليكم الجمعة في مقام هذا في يوم هذا في شهر هذا من عام هذا إلى يوم القيامة فمن تركها في حياته أو بعدي وله إمام عادل أو إمام دائر استخفافا بالجمعة أو جحودا بها فلا جمع الله له شمله ولا بركة له بأمره ألا ولا صلاة له ولا صلاة في جميع الصلوات المفروضة ولا زكاة له ولا حج له ولا صوم له ولا بر له حتى يتوب فمن تاب تاب الله عليه ألا لا تؤمن امرأة رجلا ولا يؤمن أعرابي مهاجرا ولا يؤم فاجر مؤمنا إلى أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وصوته رواه ابن ماجه أيها الإخوان وفي الختام أدعو الله العلي العظيم أن يمن علينا الخير والبركة في الصحة والعافية والسكينة والإطمئنان وفي عمر طويل على طاعة الله وطاعة رسوله وفي محبته ومحبة حبيبه خير الخلق محمد بن عبد الله وفي قنا وتيسير وإدابة وقبول ودرجة رفيعة بجاه حبيبه سيدنا محمد عليه وآله الكلام وأصحابه النجباء أفضل وأزكى صلواته وسلامة الأبدية أيها الإخوان لنعتقد جميعا ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبحي يعزكم لعلكم تذكرون قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله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 lislaam xam fi mooy teg tànkam xam fi mooy tàmbalee xam fa mooy mujjee ci lëggeel yàlla ak yonent bi xam nga ñaar yi ma suñu tàqalikoo muy jumaa ak daji Oustaz Ndaw dañoo teg teeru daara kon iqraangu jumaa ji mooy was di waxtari kon sëñ Babacar ku dégg yàlla la waaye ku dégg yonent bi sallallahu alayhi wa kon ku nekk xam na ne jar na sant jar na gërëm boo demee ca olofal ba nag wéykat baa ngi koy wax ne mooy fàkk xàll bi mooy dimbale diina ci jàkka di samp daara muy fàkk xàll bi ñuy bay kenn du yalwaani wax boobu wax bu dëggu la diina jii tey am na ndam am na sag grâce à sëñ Babacar Diané ndax ala kulli haalin diina ku ko dimbalee ci jumaa dimbalee ko ci alquran ci daara wax dëgg yàlla wàccoo nga ak moom kon gàcc nga laa ma li ma war a wax yépp nag ci moom su ma ko naree wax oustaz temps bi dana jeex te am na kilifa yu xam ne ñu ngi fi soxla nañu ci ñoom ñu jël kàddu su ko defee liggéey bii yegg na ci jàmm waaye nañ xam ne am na ñu ko taxawee woon liggéey bii sëñ Babacar liggéey ci lislaam ba ñëpp man cee teg bët am na ñoo xam ne ñu ngi nekk moom ci wetam nekk ay jawrinam di rakkam di ay rakkam di ay doomam di ay taalibeem su ma ne ay rakkam xel dana daj maam alhaaji saalum jaane mi nga xam ne mooy ndeyjooram mooy làmmiñam te mooy xaarunaam damay wax ne Moussa mu ne xam na am xaaruna xaarunaam sëñ Babacar Diagne mooy maam aji Diagne moom it tamit tabaarakallaahu ñu ngi koy ndokkee ci bés bii nga xam ne tabaarakallaahu ah taxaw na ci taxaw bi nga xam ne moom la ci magam soxla muy Mawlaay Cheikh Alhaji Aboubacarin Diagne waaye buñ ko tuddee dinañ tudd doomam yi waaye jiital ci taawam di ko taawal léppam muy al imaamu ratib imaam alaaji abdalaa jaane ci yitteem ci mbaaxam ci xam-xamam ci yaram ak teggiinam mu yóbbaale mboolem ay rakam waaye tamit liggéey boobu jëloon nañ ko teg ko ci loxool sunu magu daara di eh, sëriñ kàbbu mbeng bay ma mbeng nga xam ne ku nekk xam na ne jëwriñ la ci kër gi waaye mën naa wax ne mën naa wax ne magam daara lañ ko tuddee waaye sëriñu daara la ca kër saaweli ca màkk njaane ca aynu maadi kon bàyyi mag moom moom lañ tegoon liggéey bi ci loxoom moo taaw maam aji jaane di sëñ Mouhamad jaane ñoom ñëpp gàcc nga laama seen liggéey rafet na alhamdulilahi rabbil alamina tabaarakallaahu ci diggante Mouhamad jaane ak bàyyi mag mbeng waaye ñoom nag dañoo dalal ki nga xam ne mooy jarbaatu sëriñ bi mooy suñu mag alaaji Laayeen Géy ñu gën ko xam ci mbaara géy damay wax ne jarbaat baatu olof la jarbaat baatu olof la waaye mbaara géy moom ku sañoon am jarbaat bu mel ni moom jarbaat mooy ki nga xam ne jaral na la baat ci ñu wax la ko mbaa ñu dagg ko mbaara géy nag dëgg dëgg jar na baat taxawaayam ci kër sëriñ Babacar wax dëgg yàlla gàcc ngaalaama yàlla na yàlla fay ko yiw liggéey bi rafet na moom tamit alhamdulilah rabbil alamina kon su tuddee ñooñu yóbbaal nañ mboolem waa dëkk bi yóbbaal nañ mboolem taalibe yi yóbbaal nañ mboolem doom yi ak mag yeeg maanaam ak rakk yi kon ni may def mooy niñ bëgg liggéey bi doxee dana jaar ci ay kàddu ci ay kilifa yi fi teew gannaaw boo xamee ne dal naa leen ñi nga xam ne ñoo méngoo liggéey bi ba mu yegg fi mu yegg waaye ci sant kilifa yi fi teew ak nemmeeku leen ci jataay bi ku ci mel ni Seyid Oustaz Aboubacar Ndaw ak délégation bi mu àndal ñu jógee Medina Alaaji Baabu Ndaw ñoom tamit gàcci nga laa ma ndax xam nañ ne seen seen jëwrin ji di seen taalibe bii di mawlaaya cheikh alhaaji aboubacar diaane mu ngi teg tànkam ci sunna ba liggéey bi muy liggéey naw nañu ko nawloo nañu ko ndax ku nekk xam na ne wurus ak ku ko mën a génne rek xam ngeen ne wurus foor la al lulua al faiqa la tuhaanu li hawaani raisiha allati staxrajaha wurus wu foor maanaam kenn du ko kenn du ko soofantal dontale ka ko génne sax amul solo waaye nag rawatina bi nga xamee ne wurus wi ki nga xam ne moo ñu ko génneel dafa amaale solo kon Oustaz Ndaw ñu ngi lay siyaara di la ndokki bi yàgg délégation bi nga àndal di njabootu Mawlaaya Cheikh Alhaji Aboubacar Ndaw xaalimun wahil aadam waaye ñu ngi nemmeeku ci jotaay bi teewaayu xalifa Cheikh Mahir Diallo te mbenn jumaa ak délégation bi mu àndal yépp di ci ndokkeel di ci nemmeeku alhaaji Saalu Ndaw sanc gal ngoone tabaarakallaahu alhaaji Mouhamad Soxna Diop ci meew njóobeen ak njabootam al imaam alhaaji Aboubacrine Diop ñoom ñëpp ñu ngi di ndokkeel ci bis bi di leen tatagal kadalika alhaaji Younus Cissé kër Bamba al imaam Ndaw nguy te it Sëriñ Jaane bu tuuba ànd ak Serigne Moustapha Diané Touba Serigne Ndiouga Diané ci Ndiané gu mag ak Serigne Cheikh Cissé Touba Oustaz Diané ca Kàccot di naay bu xalifa Maam Góor ñoom ñëpp euh, teew nañ ci bis bi Serigne bi Serigne bii di Oustaz Babacar Ndaw teewaayam mooy teewaayu xalifa ba Alhaaji Mouhamadul Amin Ndaw waaye noonu la fi teewee sëriñ Keba Jaane ci kàccot sëriñ Abdoulaye Toob ci Ngodiba délégation Ngodiba ci ndigalal xalifa Cheikh Ibrahim Ba ci njiital monsieur le maire Alaaji Aliou Diané ak rakam Babacar Ba am Aboubacarine Thiam ca kafrin di borom xam-xam bu mag jàngalekat tabaarakallaahu mu ngi teew ñun asayid al imam oustaz Aboubacrine Diop Kër Saawili nga xam ne ku nekk xamee na ko sëñ Babacar Diané moom tamit mu ngi teew ci jotaay bi ak délégation yi mu àndal yëpp waaye noonu la tudde tuddee les ambassadeurs euh, muxaddam alhaji Omar Diouf mi nga xam ne ku nekk xam na ne moog sëñ Babacar samedi ak dimanche la maanaam bis jaaru seen diggante moom tamit ñu koy ndokkeel ci teewaayam ak ci liggéeyam bu rafet kër gi waaye kadaalika suñu njaatige faamara kanam rek ñu ngi ko àndum mbi ala duwaaye allah ñu ngi koy ndokke ci bis bi mu dëkk fële ci jiiri dégg nga moo délégation bi nga xam ne ñoom la fi àndal teew ci jataay bii waaye duñ fàtte itam tudd teewaayu Cheikh Mouhamad Ndimbalaan ca Dakar ak délégation bi mu àndal ànd ak oustaz Mouhamed nga xam ne borom xam-xam la jaar ci loxo sëñ Babacar Diané noonu la àndeek Abu Diop mi nga xam ne te jumaa ji moo ko liggéey moo liggéey itam finition jumaa ji te Màkka Ndiané kon ñooñu tam ñu ngi leen di ndokkee ci jotaayu bis bi al oustaz Abdoulaye Diop mi nga xam ne nekkoon na kat ci daara ji ñu ngi koy ndokkeel ci teewaayam ak délégation bi jógee Kër Bakka ci njiital Alaaji Amadou Sall ak Modou Sall Cheikh Mouhamadou Bachir Seck ca Bamba Moussa mu ngi fi teew Cheikh Abdoulaye Sall Bamba Moodu mu ngi fi teew waaye Serigne Moustapha Sall Dimishqa moom tamit ñi ngi rafetlu teewaayam ci bata barab bi Serigne Madi Cissé ci Jaksaaw moom tamit mu ngi ci jotaay bi toog ak ñun ñu ngi koy ndokkeel ci teewaayam di rafetlu lool waaw tudd naa waaye ma ñëw ak ci maire yi ci te yi fi teew yëpp soo xoolee maire du Seck nga xam ne tey mooy meeru commune bi taxawee taxawaay bu rafet ci kër gi tabaarakallaahu ak ci commune bi ñi ngi koy ndokkeel ci teewaayu bés bii ndax bés bu bésam la nga xam ne kilifaam di sëriñ Daam Seck nekkoon na wóolal ak sëriñ bi ba nga xam ne lu aju ci sanc bii daanaka ni ci loxoom la nekkoon waaw maa ngi ñëw waaye noonu lañuy tuddee tamit teewaayu maire Seexu Càlla ci mbëlëb mais monsieur le maire Abdoulaye Sidi Sow monsieur le maire Abdoulaye Sidi Sow mu yebal fi Maodo Diallo moom tamit ñu ngi koy ndokkeel baax ak maire Baye Niass Cissé ñoom ñëpp seen teewaay rafet na maire Alaaji Alioune Diané ak maire Amine Ndiaye ñiibi moom tamit yooyu yebal na fi délégation bu takk maire Cheikh Diop moom tamit kadaalika mu ngi fi teew yebal na fi mu ngi fi teew ak maire Cheikh Issa Sall bu Mbour ci teewaayu soxna Khady Ndaw waaw ak délégation bi mu àndal waaye su préfet tamit nga xam ne mooy Mouhamad Tibaadu Ann mu ngi fi teew duñ ko fàtte tudd docteur Saloum Cissé ca Amérique yebal na fi magam Omar Kata Cissé moom it di ko xam ne tey jumaa ji lépp lu fi nekk ci ay laltu ak i moket moom mooy ki ko taxawee muy Serigne Saloum Cissé waaye maire Mandiaye Kébé ca Fass Barigo moom tamit teew na fi maire yi yëpp nag may tudd kenn ku nekk ci ñoom def na ci bis bi loo xam ne lu ama am solo la ak mboolem li ñu jiite kon mbokk yi loolu mooy li nga xam ne moom lañ capté woon léegi nag maa ngi jëmale kàddu gi ci oustaz Mame Ngor Wilane mi nga xam ne moom tamit ku nekk xam na taxawaayam ci kër gi di jarbaat ci sëriñ Babacar Diagne waaye di borom xam-xam yàgg sëriñ bi lool kon Oustaz Mame Ngor foo mën a toll maa ngi soxla sa kàddu ndax yaa ñu doon wax ci sëñ Babacar ne ndaagum lu jekk la suy xoolal doxam Moustapha soppe bi yonent bi gëm leen samsul islaam waaye yaa doon wax ne keroog ba ñuy dem fa haynu maa bi mbir ma doy na doy na waar ñun lu tax nga ne lawoon fatu Màkka feeñ na gaa yi lislaam ana Mame Ngor ana mbir ma doy na ñun la oustaz lu nga ne lawoon fatu kon fal mashkur alhamdulillah sëriñ bi ñu ngi ñaan ndigal ñu wax ne sëriñ bi Cheikh Aboubacar Taw seen ñëw ni mu di li ci gën a neex man ci moom mooy léeg-léeg nga fekk sëriñ mu ne diggante ak diis ba waaye bëgg nga xoolal ba lan moo mooy ci xajul rek nga wax ne mooy benn bu dara loolu yàlla mosul la ci soo ñëwee ci dëkk bii ak màgg gërëmu dëkkee dana fa fekk. xeex wu mën a doon muy am muridiyya la wala tijaane ak ku mën a doon doomu aadama moom li mooy xool ci moom rek mu yónni yàlla ma su fekkoon ne dañoo def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam islam rek muy référence damay doon wuti yu bëri toog fi problème yu bëri toog fi waaye ñu a maamu Sodiane fan la nekkoon ñu ne wëli ba nekkoon di jàng mu doon lii suñu téere bi ñu moom ñu wax misaal ne al imsaak maanaam sa jàppee moom konoon lay wax dara ñu gaaw waaye moom téere bi fa ñu gàllan ne ñu al imsaak wax naa sa jàppee moom duñu man lu mooy am na imsaak yoo xam ne dañ ci dañ cee gàttal ndax jullit yi li sëriñ bi wax mooy ñëpp nekk benn ñi doon bennoo boobu ca Yeah. yow daal la ñu wax nañ la def ci nangam kenn ko xam ah, nga benn Babacar Ndaw dégg naa sa yow la waaye dama toogoon fii si kër Dalla kon doy ko si yow ci délégation bi xanaa ñu ànd ak kilifa jotaay bi muy sous-préfet ak soin sous-préfet Omar Diémbi ak commandant brigade Omar Bane bi ñëwee commandant brigade gendarmerie d'Afrique waaye man fi nekkam samay natt loolu comme tudd nañ leen te ñoom ñëpp ñuy taalibe ci kër bi daanaka loolu danañu yóbbaale ñun waaye maa ngi wax ñëpp gis nga di nuyu mboolem kilifa diine bu fi teew ak ah, ku ëpp mën a teewal ñu ngi koy nuyu téye ba booba ba teewal ci turam ak maxaamam ak dara ñaaw ànd nañu sunu mag Moustapha Seck di sunu borom dëkk yor turam ju kër ci wàllu baay lépp loo xam ne jëm na si waaye man moo ci sama kilifa ak sëriñ seet bi ma àndal ndax nit nag moom boppam ba mu ñàkk fekkee bu gën a jëriñ sama waa yi kër yi dama jënd samay mag yi nga xam ne yàlla leen ko jox maanaam wala muy Moustapha Seck ah maam sëriñ Seck maa ngi ak sama nijaay Ngor Dieng dëkk Njëriñ sama yaay bàyyi ma ko jëm sama waa yi kër sama waa yaay moo ko waaye ma jël nag lépp yëpp def leen di sama jëriñ di sama wasila maa ngi sama secrétaire municipal di mu ngay ndaw ak Mamadou Ndiaye ak sunu sapor sunu sapor yi waaye ñu ànd ak yow yi nga xam ne moom teewoo ARD mooy yow Pama ji ñu war a ak nguur nah, yang kami nga xam ne gën a bëri place bi ma moo ko yoroon moom moo yor ci biir daara yang ñu war a tabax mu doon si ñetti yang wala lu war a nekk jadi million ak ñaar ñeneen ko lool alhamdulilah comme daara lañ am yàlla def na suñu bis ci lañ ko jëndi pour tabax ko yàlla def ne si bagage yi bëri école yi nga xam ne junni trois millions cent mille jàppale leen ko juróomi téeméer askan am ak suuf juróomi téeméer am ay ak suuf juróomi téeméer la xar yu damay dem ci kere ak bic ak ardoise ak yeneen ak yeneen ba man ñett ñi ko jàpp jàppale ko daal yi nga xam ne ñoo jàngale ci biir commune bi ñu salaam de damay ñëw daal yi te day bëri muy àppale ci biir di toog ba bis nga rahman rahim yem ci wóor bi nga tàggat suñu yéen ni mu toll li ñu defaale ñi fàttali nag ñaa tax jox ko ñu def te la bu jafee liggéeyam la naam yàlla dana la gunge waaye tekki tekki dana bëri ñu ndaw rek dañuy yor waxtaan bis bii am sax daje moom war na mën a wax di la jaaxle yëpp jamono neexul lan ñu wax ne naa liggéey te lii bi taxaw ñu def lu ñuy liggéey ci naam bu ko ci waxtaan bi ñu la liggéey nee naa ko sëriñ bi 92 naa ko def si daara xam ñoo gis na dañoo bëgg a rab te dañu bëgg liggéey bëri am ci loolu la loolu lañ bëggoon wax di jox kàddu gi nag suñu kilifa ndax bu waxee di bëgg a wax te ñoo ko war a dal ndax ci kër bi la muy monsieur Soubrane ah ñoom Mouhamed Lamine Diop ah ñu ngi ànd ak ñëpp xam naa bëgg ñu yeeral ndax am na de la République, de son gouvernement, au nom du ministre de l'Intérieur, au nom du gouverneur de la région de Café, au nom du préfet départemental de Café, au nom du sous-préfet qui m'a délégué aujourd'hui pour le représenter dialog ñu nuyu kilifa diine rek ci bërëb bi nuyu service départementaux yi ñu fi teew nuyu service locaux yi di nekk ci arrondissement yi nuyu aussi le maire et de collègues ñu fi teew

La fête est ouverture d'une mosquée, c'est une deuxième chance. Donc ça va me marquer durant toute ma carrière. Et Alhamdulillah, vraiment, c'est long, profité. À partir d'aujourd'hui, bien, on connaît le public. Mais Issa c'est le message du président de la République. On va amener une élection présidentielle.

capitaine sur les autos moom moo sur les avions, on pilote donc pilote bi amener les Qatar. avion bi pour amener fu donc président de la république projet de ou bien projet de pour Sénégal avec son gouvernement avec son administration pour l'intérêt général de la population donc moi, ma am je demande encore je sollicite des prières pour les chefs de brigade qui fait un travail vraiment remarquable de la gendarmerie et je dirais pour tous les services qui sont dans la région qui sont dans le département qui sont dans l'arrondissement ils font un travail remarquable Aujourd'hui, on parle l'administration auprès des administrés. L'administration auprès des administrés. Nous avons Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous remercie tout le monde. ñun ñëpp ay bopp jullit ay jullit daje maa ngi itam ci néew bi suma mag suma xarit suma wëllëre suma soppe Sëriñ Babacar Diané li ma wax xam na ko ñi ko jege ba sës ci moom xam nañ ko maa ngi koy nuyu bu baax de ko ziara de ko dokel moom ak rakam ማብራጅጃ ነኝ ስሪ ሞጃ ነኝ አጓ ሐደር ልልዩ ጀጎንቲ አጓ ድክኝ አይኑ ማዲ ወለሪ አሪጊ ታለቢ ሙቀደሚ የጀብልኝ አለ ሎኬላ ለሚትም ነክ ci bis bi nga xam ne ñun ñëpp nga ko bokk asalaamaaleykum néeg bii néegu yàlla la moom kenn képp moo ko na ay jaww yi ko koy sàmmal di ko ko protéger mais bokku moom wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi jàkk yi yàlla ko moom bu leen ci jaamu kenn bu leen ci jaamu lenn ku dul kese mu jeex lu baax dafay màgg fii ci Sénégal lu ko nii day màgg bu leen nangu li bon jiitu li baax bu ngeen yàqu see rek li bon day jiitu li baax ñoom ñoo koy màgg te dañuy xawante dañuy jàkkalante bu yàgg ci jamono yeneen nit bi jàkka moo doon majalis ci lañ daan jàngee xam-xam moo doon madaris ci lañ daan jàngee mu nekk ay école moo doon kata ci ay daar yoo xam ne takkiɓe ciyam o omo d i b g u ɗ i dara koye d e f a r a b u l i jiɗaɗo e d e f a r a o ma cibi jakkata e d e f a r a o jigin cibi kir ley d e f a r a o sañ sañ kasumo ko yaram j a g i ɗimuñonen kon ay maahi ay lycée loolu école day jàmmee ak ay liggéey ngir cité xam nga nag léegi tax dañu liggéey daw ñu bi jàng ko war a suy ci l'islam wala risalatul masjid message bi nga xam ne l'islam wala jàng war na ko jàllale bu yàgg-yàgg borom xam-xam yi ci lañ bindkat yi ci lañ daan génne waykat yi ci lañ daan génne xutbakat yi ci lañ daan génne waraatekat yi ci lañ daan génne intellectuel yi ci jàkka lañ fi génne dafa war a jàkk démb mu téyewul l'islam nañ delluwaat jàkk place am lam daan li muy yëngu ci jikko yi ci xol yi siang-siang dari man ko libi kon libi beli benn bidiw beli benn bidiw la boo tidak ne Abdullah fenn Abdoulaye Ibn Abbas tarjumaa du Quran moo ñu firi alquran mu ne jàkk yi ci kaw suuf ñooy leeral ñi nekk ci comme li nga xam ne biddiw yi ak jant bi ak weer bi ñooy leeral ñu def yi ci suuf da ci kaw géej gi ci biir ndox ci jaww ji kon lii benn bi jur la mu fekk tey fii ci ay maat yi wala liggéey bi bii pour ñu kon yéen waa ay maat yi am ngeen gan boo xam ne yow ba lu nekk ci wàllu yu ànd la ak moom mais gan bi ko tëri bu ngeen ko tëralee formal ko dox ko gëdd mu defaral leen seen diine seen adduna seen àllaaxira bu ngeen ko sàggane fa mooy mu njëg ngeen du rafet gan la bu am ñu nekkoon buñ ko gasee romb du xam fan lay jëm du xam li fan lay teg tànkam ndax dafay lëndëm dafay ñuul dafay wow dafay koobaam dafay jaawale dëgg ak neen boo teglante ñaari ñetti juma te amuloo benn ngant amoo benn ngant yónnee ci benn dañ ne bind nga bokk ci naafeq yi bokk ci way sàkkat yi ñu gas te saxoon nga leen duma yombul bari na lu ñuy tuddee nga xam ne du gan isaa nuudiya li salaati min yawmi l-jumuati fasxaw ila zikrillahi wa zurul bayaa saa yi comme dayoo la moo in kuntum tahlamuun yàlla ne buñ nootee woote julli jumaa wasalul bay ah yow baykat bi bàyyi sama si ci tool bi nga ñëw dund si sama nga الإسلام فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون falax boobu lañ ci jëlee texe ki doon noonu lu dul dul moo ne ñëw leen ci texe ki doon leen am loolu la doon wax ne ñëw leen ci texe texe mooy lépp jullit bu amee ak texe ñu ngi doon jël Sëriñ Babacar Diané ak ñi ko doon jàppale yëpp man bana lillahi masjidan wa walaw kama fasi qatatin bana allahu lahu baytan fil janna yonent bi nee na bu tabax jàkk ngir yàlla loolu de dafay ni gàmbu picc kenn gisagul jàkk ngir ni gàmbu picc mais li nga ci def wéy ni gàmbu picc yàlla dana leen tabaxaat néeg ci àjjana néegu yàlla ci àjjana la mais ajul fu ci biir ëttu la peut être ajul ci ëttu la moo tax yàlla da ko koy dencal loolu la ko jullit yi am peut être jullit ajul fu ci kaw suuf amoon nañu ci waxin àjjana biñ ko lotisee borom xam-xam yi ñëwee moom lañ si Abubakar am Jibril naaw na ci weer te jeexalu te Jibril yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam képp moo ko mos a gis ci ni ko yàlla bindee benn bi ci kaw suuf benn ci kaw asamaan ba ko yonent bi gisee dafa xam ba mu dimbali ko ne ko xamuloon ni yàlla am na mbindeef mu ni yow. mu ne ko man juróom-benni téeméeri xob moom la ma yàlla jox te ñaari tas yi mu denc lu ne ko te mu ne ko yàlla bind na ku ma gën a yéeme mooy Israfil sama mbokk Israfil sama mbokk am na juróom-benni téeméeri xob te benn bu ci nekk am na li suma juróom-benni téeméeri xob yi wallahi la Mariana, Madinoyu, the rest, the rest don't only be the Kodi Kodi, get a Yalla. Kodi Yalla, Moye, Yalla Moye Fidele, Yalla Fidele Yalla. Bis Bibisu, Inugire Jengam Yalla, Bis Yoko Bokala, Bis Nyakarlo, ak ay borom yi xam yu sell siyaare leen leen ba ci jotal ba ci xormam ba ci yaakaar ngeen jëm yàlla te ku jàkkaarloo borom xam-xam wala jëli xool ko bëtam jotal ak bëtam xorma yàlla jaxeel la kaaba gi li ma nag mag julit bi moo gën a mag kaaba gi nga jàkkaarloo julit da ko xool ngeen jëm yàlla moom it yàlla nga jàkkaarloo saako yi di ko xool ngeen jëm yàlla mais moo tax léeg-léeg àqu jullit baaxul xorma jullit baaxul jullit bu ko dee jàppee ñu toll ni sampal bi mais da ko jàppee ni ko yàlla bindee di ko yàlla nga mën a jëriñ ci moom yéen ñu benn bis dafa xut bu mu ne inna laa ibtala alaykum al juma yàlla farataale ci ci himata aw nii himata aw nii ci bis bi ci weer dafa màgg nañ xam ak xam xam xormam yooyu ñu def la loo ne te ni boo masal ji nga comme si yàlla bum seen par maam bi ci kàddu gi ndax ñoom it buur ñi ngi ànd ak sobe bi mu ne bu leen buloo ci jàkk bu leen leeral ci jàkk bu leen digloo ci jàkk bu leen leeral ci jàkk bu leen di jënd ci jàkk bu leen di jaay ci biir jàkk bu leen ci rocc seen i jaasi bu leen ci gàddu bu leen ci bucc paaka bu leen ci soxla paaka jàkk nii bu yàlla la. jàkka du seen centre jàkka du penc jàkka du marché jàkka du seen centre du marché du gën place du penc jàkka nit ñi yàlla la nañ ko xam jàkka nit ak yàlla fi buyutin asina allahu an turfaa wa yuskar fi asmuhu yàlla moo ñu digal leen nañ ko dawal samp ko mu yëkkati ko ci ko jullit yi buñ ko mënoon dëkk boo dem na jàkk ji dana fo na gën a wét na gën a rafet na gën a taal ñu koy dundal ci saa yi ak ci baatin mu ne la baatin jullit si ka yàlla jàng alquran jàng xam-xam yàlla jullit yi bu leen fàtte lu يطيع رسول الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له بها بالقلوب والأصابع رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فوق أبعدنا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله amul benn métier boo xam ne war na laa mën a yàqal sikkar yàlla dem ci jàng te julli ci ñëpp ci jaaratun wala bay woon yóbb na lépp loo mën a tey jàpp yow suma mbokki jullit bii bu yàlla aw dee ne ko ñëw yow xëy yàlla ci wooteem doomu aadama yi sax bëgguñ ku leen di tan xawlu ak ibru ko ay kenn ci ko ko wa man aslamu mimman amana masajid Allah ah kan moo gën a mën a tooñ kan moo gën a tere nit ñi jàpp yi gerte yàlla leen moom lañ ko bàyyi julli si yàlla yi sëñ Babacar Diallo ñu ngi lay doon ci liggéey bu rëy bi su ma benn mbokk wax na ko léegi bi mu lay doon kenn mooy ci liggéey bu rafet bu yàlla bi ngay jot ci tabax ay jàkk ci toj ay àll ci xaaral ay yoon ci bënn ay li yëpp dafa dugg ci benn avis sadaqatin jaariya isa mata ibnu adama inqata amalu illa min sadatin sadaqatin jaariya sadaq yi daw gannaaw li yëpp dina moom di toj àll bi di leen ci yàlla yi ci bay di xaar yoon yi nit ñi di ci jaar di tabax ci rek yi di tabax jàmm yi ci sadaqa yàlla yi la bokk awaye bi yun tamoo bi awwalul insaani yi ngeen doxal la ñu ngi lay dokkee ci liggéey boobu kon ñu ma jàng yi ngeen bàyyi ko xel li may mujj nag mooy bu ñu wootee julli du am yéen ñi ni ci dëkk bi yëpp am na ku ko wax di teew une heure dafa mel ni dafa jaamu yàlla indire kaar jaamu yàlla déedéet jëlem indire kaar jaamu yàlla awul nag indire tont jaamu yàlla kat désir mooy kaar jaamu yàlla ganaar désir bii jaamu yàlla nen wala nen ni tuuti ku leen ci tuuti jàkk ku la fa njëkk rek moo lay ëpp tiyaaba ko pële yoon bul jàpp nag man ngay nëbb wala malaaka yi wala man ngay nëbb yàlla wala malaaka yi nit ñi buñ toppal ni teew si nga ci tubaab yi yàlla am na ko malaaka yi xam nañu yonent bi nee na bi soo ñëw bu ñu ubbee buntu tubaab yi malaaka yi dañu taxaw ci buntu yi ñoom seen i kay ak seen i ñu bind ne moom Aliou Diané ñëw keneen dem ñëwal ñu ne Alaaji Babacar Mbengue ñëw lii dañ koy tegale ku ñëw rek ñu bind ba imam ñu taxaw ci minbar bi malaaka yi tuub seeni kay dem jëmbal ko yàlla am ku laaj Abu Umaama ne ko xanaa kon sa tur nekkul ci biir kay bi amul juma mu ne ko am nga juma mais sa tur demul ci biir kon ko leen ci jàkk rek maanaam bu ñu ñëwee nii nii def la xool ñi nga xam nañ dëkk yi ñu ñu mu yow yow ci tan su feebaree nga doon sàpp ci sàngam dañu simbo in kaana daatan bu fekk dafa leen jànnam bi jubal ci sàngam dañu simbo xam ñi nag li si jumaa julli jumaa am nañ ci amoo am na ngëneel am na ngërëmal yàlla maa ngi yemale fii sama kàddu maa ngi ñaan yàlla itam mu nangul ñoom nangul leen su rafetee daf mu sawar loolu laa ci jublu moom laay siini bu fekkee ne safaan bare yi ni moom yàlla xam na kon la ca des yëpp ci maam la waaye maa ngi koy jégal mais yàlla yàlla ñu leen gërëm leen ñu ngi delluwaat di ndokkeel di siyaara sama mag sama xarit sama sama soppe Serigne Babacar eh. Diané ba ñu yàlla boole yàgg na wallaahi wax na ma bu dee bu gis yàgg di wax Serigne Babacar maa la sopp ma ne ko maa la gën sopp ay eh, nii la bii soppante kii jëm yàlla rek eh. jeex na man dama ko sopp ngir yàlla sopp ngir yàlla mais du leen maa ngi leen di mën a wax. voilà yéen ñëpp ak yàlla yàlla boole baax na salaamaaleykum wa rahmatulah

julli gi ñu ngi ndokkeel sëriñ bu baax di ko ñaanal di ñaanal képp koo xam rek njabootam nga rawatina sunu mbokk mu baax mi di sëriñ Abdoulaye di doomam doon suñ xarit doon suñ dëkkandoor doon koo xam ne comme ni ma koy waxee man na sëriñ bi njaboot sëkk moom ak sëñ maam aji mii nga xam ne rakkam la waaye dafa mel ni sunu jaxasoo sëñ Abdoulaye la gën a baree ci sëñ maam ajji waaye sëñ maam ajji kàddu yi ñuy dégg muy jibee ci moom di dugg ci sunuy nopp moo nu xamal ne sore moo nekk ci suñ diggante waaye li ma xam ci Abdoulaye lépp mu ngi ci moom ci nangu kilifteef ak baax ak mën a nekk ci roon kilif ak mboolem njaboot gi nga xam ne ñëpp njabootuk sëriñ bi lañu te ñu jaxasoo ak ñoom sëriñ Babacar nag comme ni ko fi benn waxkat waxe woon sëñ maam góor loolu wax ju wér la nee na nit la koo xam ne lislaam rek mooy li ko ñor dëgg la am na tarixa ku nekk xam ne ne Seex Ahmad Tijaan yi mooy sëriñam ci tarixa Tijaan la nekk waaye nit la koo xam ne it ku yaatal la ci lépp lu baax loo xam ne lu mat a jox orma la rek jox na ko orma tey ñun de ñoo moom ñoo dëkk fii ci suñuy dëkk sorewuñu waaye yàlla dogal na it suñuy xol sorewuñu moom mu doon kilifa gu baax goo xam ne gu ñu yaakaar la ñun liñ ko yaakaaree nag duhut li ñu nit nit wax duhut lum ñu jëfal waaye yàlla ñu ko wan ci moom man boo gisee ma teg ko barab kenn waxut ma ne moom nii la toll yàlla moo ma xamal moom ci moom dara moo tax ma teg ko fi ma ko teg te it ni ko sëñ maam Gor waxee noonu rek la demee murit yi féete fii ci gox bi mu dëkkee ñun ñëpp ñoo ko gërëm ñoo ko sant ndax kenn ku ne lépp loo nekk di ci yëngatu te muy lu baax saa bu ko yëgee alalam dugg na ci te it lépp loo xam ne xew-xew la boo xam ne xew luy am fii ci ñun la saa bu ko yëgee alalam dugg na ci su yebalee ndawam it alal ju am solo la koy booleet kon nit ku mën a maslaa la nit ku mën a toppatoo ak mbokk la te mbokk gi yëpp mbokku lislaam moo ci jiitu tariix yi ay yoon la yu jëm ci dëkk waaye lislaam mooy li ci am solo kon moom fa tabaarakallaahu ko rafetal la gis ngeen fi suñ mbokki madinatu salaam yi muy njabootu maala jablaay ñoxate xalifa bi yebal na doomam mu ànd ak rakkam àndale ko yeneen i taalibe yaakaar naa mbooleem kilifaay yi dëkk ci réew mi kenn ku ne seet nga ko nga gën a wóolu wala mu gën laa jege te féeteeg sëriñ bi nga yebal ko mu ñëw fekk fekkale si ko bisam bi kon ñu ngi leen di ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal sëriñ bi yàlla na ko fi yàlla yàggal moom dëgg la ku niroog sëriñ Saliou Mbacke doxin la kilifa li ci gën mooy xol bu yaatu ndax kilifa dafa mën a liggéey lu bare bare bari ci dundam man ci jëriñ ñu bare bare bari ba ci bay mi sax war na war nañoo mën a jëriñu ci kilifa bu xol ba yaatoo te loolu la ko yàlla defal ku xolam yaatu la eh, ku am wëlur ci réew mii mu nekk la ñépp a ko yaakaar ñépp lay di dimbalanteet seetul xeet seetul tarixa seetul dara lislaam rek ak bokk moom lay dox ci guddi moom lay dox ci bëccëg loolu yéen ñu ko gën a xam waaye fokk ñu leeral ko fi nit moom bu bisam jotee la nga xam ci moom te mu rafet te boo ko waxee kenn du ko mën a weddi wax ko wàññiwul dara loolu lañ xam ci moom la ñu dund ak moom fii ci réew mi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu ngeen baal ñu àq jërëjëf jërëjëf Cheikh Daawda Seck Koofa baarakallaahu ci kàddu yu rafet yooyu tabaarakallaahu ñuy dawale waxtu bi rek jox ko maama Aji Saalum Diané moom it tamit mu yëkkati kàddum ak nu ko mën a rek ñu jël ñu gaaw dawali oustaz Ndaw mu euh, tëj kàddu gi ñaanal ñu ñu yeewee ko insha allahu taala ki taalibe sëriñ si laa xamagut dama xamut ci alquran wala dama xamut ci hadis waaye du gudd nag ngeen baal ma yéen asaatiisa yi baal ma yéen olamaa u yi rawatina ñu jëkk wax yépp ñun daal ñeent la ñuy ñeent la ñuy sant teg di leen ndokkeel karim dafa am ñeenti baat yu ñu ci tànnoon ne loolu moom lañ bëgg a def suñu liggéey te yàlla laajoon ko xeetu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam am lahum baada auzu billahi min asheytaani rajim du ma ko dalee ci aaya nag am lahum ay arjulun yamsuuna biha am lahumu ayunun yansuruuna bi am lahumu aydin yabtishuuna bi walillaahi al-amru wa min min qablu wa min baadu loolu rekk ñu fi dajale julliti yàlla yépp ustaas nga baal ma yàlla ñeent ñooñu la séparé mooy àddina yépp nag waaye dafa am lum ci bàyyi mu baxee leen ko yéen borom xam-xam yi yaan la waxut gémmiñ foofu waxut fi gémmiñ moom kon ndekete jullit yépp mu amala bi dem lante bi ndekete hoo tànk yi la waxoon ne nañ di dox di dem gàcc nga la ma jërigéen jëf am lahumu ayunun ndeke yéen ngi ñuy xool bët boo xam ne bëtab cofeel la lu ñuy sikk sikk ñun ñii wa aynu rida kalilatun an kulli aybin fa tabarakallaahu loolu lañ leen sante am lahum aydin yabtisuuna bi ngeen jox ñi seen loxo yi luñ laal ngeen laal lañu ko luñ dóobu ngeen dóobu lañu fa kon sëñ bi maasa te ñaar rek nag la sant ñaar rek lañuy sant waaw beneen bi am na asaar yëpp yas moo ne bi ndeke yéen a jox seen nopp yi lépp lu xam ne def nañ ko mu wuuteeg safaan wala muy safaan ngeen ñi déedéet buñ defee loo xam ne uute naag loola itam ngeen ñi alhamdulilah kon loola lañu leen soo soxlaa woon yéen sëriñ si ñi wax yépp nag aaye boobu man ci laa leen dugal waaye ñi sant ñaar rekk nag képp ko xam ne ame na ñaari nopp ñu ngi koy sant di ko gërëm wolof yi moo neexut waaye képp ku amee ñaari nopp te dikk fii ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm te di leen balu itam nag yaakaar naa ne woote bi communiqué bi ñi ko ci déglu sëriñ Babacar bi mu yónnee ndawam nee na kenn ku ci nekk masrëbam naaruwaayam boo demee nga wooy ko ca foofa ku bokk ak ñëpp am lante ñëpp boo tuddee kër boo tuddee dëkk wala nga tudd nit am nga problème loola moo tax sëriñ bi ne ñëwoon nag naanu waay yi kër maam borom Touba kër balaaji baabu ndaw kër eh, balaaji abibu sàll kenn ku ci nekk ñu toppee ko noonu ñu toppee ko noonu kon loolu ngeen baal ñu jàq waaye loolu dafa am luñ ci doon kii rek moo tax eh, oustaz ndaw yow mi nga xam ne fa tabarakallaahu lépp yow la ndax lépp alaaji baabu ndaw la waaye alaaji baabu ndaw alaaji moo jaane waaye alaaji moo jaane fa tabarakallahu maam xalifa ñas la maam xalifa soo demee ca borom da ndaraame ndaraame ba alaaji omar daraame boo ko tuddee yaakaar naa ne danga nga jaamal boo ko tuddee yaakaar naa ne ku tudd jaamal da nga tudd wanaar kon gis nga ko foofa nag fa la seen maam soqee ko di tamsir xaali ndumbe mu jox lim leen mu mu mu waaye daal na nañ taxawagum foofu kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp monsieur le maire yaag ñi nga àndal yëpp fa tabarakallaahu moo taxoon ma waxoon na ñaari nopp benn noppi nañ ci jox buur yi yàllaa leen ko jox duut ñun benn nopp bi ñun ñi nga xam ne mataguñ buur waaye ñu jox ko sëriñ si ñoom itam ñu jot li ñu ko taalibe yi alhamdulilah rabbi alamin kenn ku ci nekk fa tabaarakallaahu ku lim doo matal waaye ñii fi nekk yépp kenn ku ci nekk sant nañ gërëm nañ kenn ku ci nekk li mu wax fa tabaarakallaahu su fekkoon ne du wutoon ak temps bi dafa gàtt wax dëgg yàlla kenn ku ci nekk ci yéen am na lu ma mën a wax ci yow waaye nag laa darara wala diraara Eh, ñi ngi sant ñëpp abi Mbaye du ñu la sant yow parce que ci kër gi nga dëkk la nga ci jàllale yëpp dégg nañ ko xam nañ ko sëriñ si bi nekk kenn ku ci nekk comme oustaz Babacar Diop waxal na leen yéen ñëpp moo xam kër ku ci nekk kër gëm dëkk oustaz waxal na leen kon ñun duñ def dudul gàttal kàddu gi di leen sant di leen gërëm di wax ne lii nag mooy lislaam moom rek lañ bëggoon nag yal na gën a yokk yal na gën a yokk xol yi yal nañ gën a ànd nekk benn gi yàlla ko yàlla gën a def ci barke yonent bi yéen sëriñ si nag am ngeen problème man mii xaw ma de te seen kaw laa topp te su ma juumee yéen la ñuy duma wasalaamaaleykum ah, jërëjëf maama Hadj Saloum <coughs> ci kàddu yi rafet di jotali par tabaarakallaahu wax dëgg yàlla yemb na ah, Habib Habib Mbaye sëriñ bi nee na yow jaroo sant waaye man ngaa noppaloo rek moom nee na sant na képp ku am ñaari nopp lambas ba xam am nga ñaari noppam dina bu dee am nga ñaari nopp rek santaale na la kon fa tabaarakallaahu kàddu gi mu ngi jëm ci ustaas al imaam bakar Ndaw gannaaw moom aji kàddu yóbbaale na kàddu sëriñ bi fa tabaarakallaahu Ousmane Mente Falil mu ngi fi xam naa ne tamaateem ji boo xaw mu mañ ci bala ngay jël Ousmane Mente Fall fekkee tamaateem ji mën nañ ci am balaa sëñ bi jël te mu gàtt rek ñaari doom rek tamaate ji ñaari doom rek ah. ah doo cee faral di kii. may woy sax de ñaari doom euh, maa ngi nuyu Sëñ Babacar moom sama xarit la moom <laughs> li tax du ma dee du dee woy ci jàkka su may woy yépp ci fi nit ñi de waaraate foofu laa ko teg waaye bëgg gu nit ñi bëgg suma woy yëngatu bi ci biir jàkka ji moo tax duma ma ko nangu dafa am. woy woy woy boobu ngeen dégg ma def ci xaj def naa ko ci yeneen yi benn waaye dafa ñëw mente farataay njàpp ñaata la sunnaay njàpp nag ma def ko noonu yee ma ne farataay njàpp lay bëgg a lim lim bi mooy juróom-ñaar yéena sëlmu juróom ma ci des daa ko waxtaanee diggante tikku njaraak ci masaa bopp raxas tànk gaawal tey ragg nii rek lañ ko santaane su nañ njàpp juróom-ñett la raxasu ba woon ca njëlbeen galaxandi ko soroxandi ko nii lañ ko santaane fiirul dëppal masa bopp koro ko nopp yeesal toftale farata lañ ci santaane la ko dalee ca bunt bunta fiq ba ndoxoy set mën a setal ba ca farataay julli yi mu ne foofu laa lay xaar farataay julli ci laa lay xaar mane ne yéene ka barab xaramal ak taxawaaya mag jàng faate ak taxawam lañ ca santaane juróom benneel ba mooy jàpp woom si gil muy juróom ñaar juróom ñetteel ba mooy sëpp bul ko caaxaani siggil juróom ñeenta ngoog fukkeel balaa di wax nii toogaay bu mu bay fukk bul ko caaxaane sëlmal fukk ak benn ngoog dal sax farata ngoog su benn manqué du baax kon bul ko caaxaane lan laa ko ne am na xawlaane waaw ñii fukki farata ak ñaar ñii ak ñett ñii ne ak ñeent kon daal am na xawlaani xaw fi ne am naa lay mu ne maa ngi jéggulu dama dama woyoon benn woy mun taxa bal aw dama koy dama koy wax ni ma ko woyee rek bismillah ima barke lu woy soppeeb seex seex tijaani sërif xiiwalam gi jeex koo xamul mente dégg mente am déet géer gi doon géwélab gaay yu baax te mat njiit lii a tax xaaji baabu tax ko fental wëy yu neex te dëggu lii a tax ma ñëw teew ay waxam bëriwul seetlu ngeen ko boo baax ay jëfam bëri lool suy ci wàllu doo baax diina jox na ko cër tey lewet te am baat xam njëriñ dëgg lool set sell am baat abid la sari leer na nañ ñi kom weer xam xaqiq bu wér ñuul bu ànd ak leer sirru ilaha illallah mu ngeeg moom soo wéetee lima ma wax ngeen la wéetal ak moom soo wéetee ak moom soo génnee soo di soo génnee da nga am sirru faydu anwaar sëriñ bii ni mu mel ay mbiram damaa yéem yéen ñi jokku ci damaa bañ jox la ko muy muy muy kii yéen ñi jokku ci ko comme fas yéene di ko woor bañ ne tey la fanweer ñaqal leen kile yéen yépp suy mbayum tool mbaa liggéey bu mu doon koo mënul ñëwal toog muy mag ñi ñuqi leen di ko jox seen alal sëriñ bi loolu tax ma ne fi ni nii li ma ko war su ma ko fi waxe poos bi nii lay toll nit ñi naan nii la waaye su ma génnee nag yàlla ñeent fukki at yi ma jaam ak ak ak loo teg dem ci jàkk ñu wax ma rek ma taataar comme noonu ma suma koo nangu waaye dama ko bëgg na te yàlla tax fi may terminé mooy jataay yi li ko tax a baax ci loo mooy xam-xam boo muy ni boobu sëñ Babacar Diop sama xarit indi buñ ne ñu ngee waajal xewle sëñ Babacar dëkk bi ñu jubóo di woon réunion ba ñu réunion ngir defal xewli ci la ñuy jubóo ci hikma bi beneen ba mooy ñi ay jos meeke mese ki ay ganilaa ñooñu seen yëfa dañ koy denc ngir kenn du gën keneen ay otage la ñuy def pour nuroo seen la ma leen wax dëkk ba nag defaraat nañ duus yi defaraat dëkk ba bale bale yi defar yëpp te gan ya nag coow lu bëri bëri bëri benn fan lañ fay dem dem ñibbi baxee leen seen dëkk bu set ba duus yi ñu defaraat sàkket ya ak yeneen ak yeneen maa ngi jéglu bu baax dama waxoon ne julli ci jumaa wareef la ci képp ku mu ngëb na julli ji gor su góonaan wareef la ci ndim baaleex na te gëm rasulullah soo ko amee nga sol lu weex bul fa ŋaayoox te bul fa xeex déglu xutba ga bul di wax kon def nga ndigal rasulullah soo bëggee tukki jogal ci njël bul la fa fajar xaree jogal génnal la jumaa ja ndawal dawal hadis bu wér la ci rasulullah julli passeport aljana asaka di tikkitu aljana koor di visa wu aljana xaj maa ko dëkk rasulullah ma ne ma ne waa xamul du fi xaj mun taxaa maanaam xol bu laab laissez passer la ku ko yor yàlla xàmmi la xol bu laab laabalal na la sa jëf nga ànd ak rasulullah maanaam ilaa man ata ata laa laatem bi qalbin salim xam nga fii moom fii maa ngi jàkkaarloo suñ Babacar faree ma nii suñ Babacar faree ma nii mente moom du man a wax di ñaan sëriñ bi sëriñ bi ma yëgu yëguma ko woon démb la ma ko abbee mbay wax ma ne ko incha allah danaa dem man ñaari yoon laa taxaw màkk njaane benn ba dama demoon siyaare ko li beneen bi mooy bi soxnaam si génnee jamono boobu moom sonn ma koy gis sax dama ñëw bokk ca mbooloo ma rek ma tas ma dem ndax sëñ bi comme gis defe na ne moo la war a jox te boo boobu bis ñun ñoo ko war a jox waaye moom moo waru ñoo jox maa ngi jégalu ci kàddu yi waaye man la alaaji baaw ndaw man moo ne kan man jaaxal na man man menti moom jaaxal na ko moom kana baaw ndaw man man ndaw moo suma sëriñ waaye man alaaji baaw ndaw la jaaxal na man kenn ban ban nit la oustaz lii mu solte bu koko da jotee simbag laay def ak ñal <laughs> bu ko ne ñoom mu taxana ah oustaz nag ma ne ko ah ñun ñun ñun gën a woykat lañ ñun ñun ñun ñun nañ tiitaru rek sol xam nga ñun dañ ñemee nit man daa dem place yoo xam ne yàlla kese la waaye daa dem place yoo xam ne la ma faafu daanaka tuuti ci yàlla xaay laa da gën a bëgg su ma yàlla su ma diggante yàlla la naa wax mooy li nga xam ne waaye xaay ma ne lu ma ci jot na naa ko def teg ci sunna alaaj baa ko jo waxoon naa la bëgg naa jàngale kat waaye maa ngi laay prix bi nga xam ne moom moo ma xam naa ko fi ne léegi maa ngi jégalu te ënd naa la ma juróom kon maa ngi jégalu wa ma salika ala bi wa salaamu aleykum wa bu dee tawhid la ak fiq sëriñ Babacar Diop wax na ci lu bari sunu xarit la sëriñ Ousmane Cissé neen sëñ sëriñ Ousmane Sall sëñ Ousmane Sall borom sant wu doy waar wi moom itamit fa tabarakallahu wax na ci lu baree bari ak sëriñ maam góor wax na ci lu bari mu yéem xale yi nga xam ne tàmbalee ci alxaaji jaane Diané sangam sëriñ bi nee mi ngi yéemu ci yow mi ngi koy fàttalil. keroog bi ñuy jullee ba ñuy jullee jumaa Madina Alxaaji Baabu Ndaw Madina Salaam kat. la ma fàtte woon ca boppam yëpp. fàttaliku na ko. tey ci sangam bii di Alaaji Abdoulaye Diané di taawu sëriñ bi. ndax ni mu gisee taxawaayam. am na ku ko wax léegi. bu doon benn keneen la. bésu sañse la ci moom waaye kii mu gis bés bi bésu njaam la ci moom continuel ci loolu mooy njëriñ li ak ilimaan yépp ilimaan géey ñoom ñëpp loolu la gis ci moom yàlla na leen yàlla taxawu te yokk leen kartan ñi fi wax ñépp ci nijaayam su koy tënk ñaan. nijaay maam alaaji Saalum Diané. moom rek la fi am comme seede. ndax ñoo bokkoon nekk gent pël. ak Madina Salaam. mu yoroon njaboot gi foofa xam ne li muy wax ci jëmm ji lim ciy wax ci sëriñ Babacar Diané fekkee na ko bu fekkoon nelaw. bu mooy dundal mooy dundal nit. mooy dundal nit. kon Serigne du dund. bu fekkoon lekk. bu mooy dundal nit. kon sëriñ nit. kër Serigne Babacar du dund. bu doon naan. mooy dundal nit. kon Serigne Babacar Diané du dund. nekk naag Serigne Babacar Diané moom xam na ci dara moo ne moom ak sëriñ bi ñoo daan waxtaan ak Omar Wilane ba ñun ñu gëmmentu bàyyi ko nelawi moom du nelaw kon loolu ca la sànjaafoo bés bii ca la ko amee ba yàlla may ko mu taxaw ci maqaama boo xam ne kenn mënu ko wax ñiy wax ñépp dañ koy wër waaye mënuñu ko wax parce que mbirum yàlla la yal nañ ko muurloo nañ ko muurloo gi mooy yal nañ ko xam nitu yàlla dana yegg ci yàlla foo xam ne borom sens rek moo cay jëriñu waaye ku yàkkamti doo ca jëriñu moom nag période bii mu toll yàlla na ko dund téeméeri at ak ñaar fukk ak juróom-ñenent ci daraja yonantu xam nga ku dem ca marché ba da ja da jënd marminet dañuy xam ne kii li muy jand mbooloo taxut koo jënd. mbooloo taxut koo jënd. boo ne jaay ma kilo kilo cinal ñaari kilo. ñaari kilo. dañuy xam ne kii li muy jënd. xam ne kii li muy jënd. ci kër la yem ci kër waaye boo ne jaay ma mbana. waaye boo ne jaay ma mbana. dañuy xam ne kii li muy jënd. dañuy xam ne kii li muy jënd. kër taxu koo jóg kër rek taxu koo jóg. dëkk bee ko tax a jóg. kon nag kii tey. kon mbana la te mbana mi. kenn xamul naka la day yal na ko yàlla yokk li tax mu tuddee ko cin muntaxal xayaat daytalu maqaama yi ci wàllu yi mooy wi dem ba nekk comme cin te yéen ñëpp wax ngeen ko cin mooy koo xam bu jeesee ba tàng lu dugg ci moom da nga ñor xamul benn weerante cin bu tàngee ba tàng xàmmeetul dara nee ngeen kii xamul murit xamul taalibeem xamul tijaan xamul laayen xamul xaadir wax ngeen dëgg cin li moo baax ñépp ko bokkoo ku indi mbaam xuux mu toggal la pas-pas rek lay togg pas-pas boo dikkee pas boo ñëwee ci moom. booba pas-pas dana ko togg. yéene boo dikkee ci moom boo dikkee ci moom. booba yéene dana ko togg. parce que cin li baax na ba pare. nit ku baax nit ku baax. balaa yegg. day mel ni cin. ku ñëw rek jëriñu. yàlla na ko fi yàlla yàggal lool fa tabarakallah sanu xaalixiin xàmmewul wexeñ nit ñi noonu la ñu mel wexeñ mooy yéeféer xar mooy jullit la ca des noonu. la kon nag moom loo ko indil. kon cin li moom loo ko indil. loo loo amul kersa ci indil ko cin li. cin li ko cin li moom mën na koo togg moom. incha allah yow kay yaay am sa problème. kon ñu ngi koy gërëm bu baax. xam ne moom ci boppam. fay na Seydi Alaaji bu Ndaw ngor boo xam ne. lii tey. lii tey. mu teg ci loxoom. ak ak ni ma ak nee na ni mu doyee waar. ak ni ma doyee waar. mu doyee waar. waaye mu xool alaaji baabu. waaye mu xool Seydi alaaji baabu ndaw. jox ko cër yëpp. jox ko cër yëpp. ne lu bàyyeekoo ci moom. ne lu bàyyeekoo ci moom. ak nu mu mën mel. ak mel. bu melee ni wexeñ sax baax na. na ñëw jiite mbooloo mi rek. ma xoolee ko mu ne ma xoolee ko Seydi baa bu ndaw. ca suba ba léegi. nanguut koo tudd. ndax du wax ne. sama papa la yëpp. neenal góorgóorlu neenal góorgóorlu. man dama daan mu ne moom da daan def ay débat. ci ay xam-xam ci ay xam doon wax ne doon wax ne. doomu aadama yi booba jamono bokkul ak jamono tey. booba jamonoy tey. dañ daan gëstu lu bari. dañ daan gëstu lu bari. ne méritu doomu aadama. fan lay génne fan lay génnee. buñ joxee lépp yàlla. kon doomu aadama fan lay amee mérite. ñu ne ah kay dana am mérite ndax lim nangoo jëfandikoo ndigalal yàlla ndax lim nangoo jëfandikoo ndigalal yàlla moo koy jox mérite fa la di génnee du tere yàlla nekk yàlla kon nag sëriñ bii fa tabarakallaahu xat na trop ku baax a ngi nii yàlla na yàlla taas ñi ci barkeem mu ne amoon fa kii ay mbokk taalibe ay mbokk taalibe la koy amee. bu dee bokk ci alaaji baabu ndaw. bu dee lu bokk ci seen alaaji baabu ndaw. man surgaam loola. mu ne loolu surgaam yi jamono seen alaaji baabu. surgaam loola la. mu ne loolu surgaam loola la. yàlla xam na ko. léegi yàlla xam na ko. mos naa bind leetar góor yi. mos naa bind leetar góor yi. booba maa nga Dakar. booba ma nga Dakar. ma ne ko maa ngi lay ñaan. mu bind leetar baa ma ne ko maa ngi lay ñaan. sa béy bi ñëpp xam sa yow. sa béy bi ñëpp xam yow. mënuloo boo ko lay te boo ko lay séddale ko. te mënuloo boo ko lay séddale ko. bàyyi ko ba mu dee nga gas ko suul. bàyyi ko ba mu dee nga gas ko suul. bu feebar ba nga rey. bu feebar ba nga rey. loolu moo tax ma ne kon su ma ne njaboot yëpp lay bàyyi xel. loolu kon su ma ne njaboot yëpp lay bàyyi xel. kon loolu xaw na koo mën a war. kon loolu xaw na koo war a mën a fekk naa la ci mu doon ko fekk naa la ci loolu danaa la loolu kon nag man ñii samay mbokk taalibe lañ kon mu ne la ñii ay mbokk taalibe lañ moom mii moom mii sama mbokk taalibe mbokk taalibe la moom mii sama nijaay nijaay la sama mbokk la mbokk la nekkul nijaay koo xam ne nekkul nijaay koo xam ne dañ koy làmbatu dañ koy làmbatu xaqiiqatan xaqiiqatan la muy sama xarit. muy xarit laa ci tam. sa papa boole ma ak moom. Mbaye Alhaji Babou Ndao boole ko Serigne Babacar Ndiaye. bi may booleeg moom. bi koy booleeg moom. yàgg na yàgg na. ndax wax na wax na dama demoon ba kenn xamatul fan laa nekk. mu ne la dama demoon ba kenn xamatul fan la nekk. te booy fekk maa nga. jóge Orbalta ñëw Bamako. fekk na loolu jóge Orbalta ñëw Bamako. wala Niger sax. wala Niger sax. jaar or jaar or Orbalta. jaar Orbalta. ñëw Bamako ñëw Bamako. bi ma ñëwee Bamako. bi mu ñëwee Bamako. góor gi xamatul ci Sénégal fu mu yaakaar yónnee na. góor gi fu mu yaakaar ci Sénégal dana yónnee na. dégg na ma Kousanaar mu yónnee. dégg na ma Kousanaar mu yónnee na. yow Ousmane Ndaw. ku ñëw Ousmane Ndaw. dégg na ma Tambacounda. dégg na ma Tambacounda. mu yónnee fa. mu yónnee fa. te Alaaji Mor Mbéli si. ku ñëw Alaaji Mor Mbéli si. waaye ba ba xam ne yi kam ci Sénégal jeex na. tool yi nga xam ne ñu xam Sénégal jeex na. moom mii ne woo. Serigne Babacar Diagne nii la woo. gaa ngi yónni ci sama borom. ne ko gaa ngi yónni ci sama borom. dafa am taalibe la. te boobu taalibe la. mu ca kër ga. mu ca kër ga. mu Kéba laa bëgg xam fu mu nekk. mu Kéba laa bëgg xam fu mu nekk. kenn ku commencé liggéey ba. kenn ku commencé liggéey ba. ba mooy yégali liggéey ba. ba muy yégali liggéey ba. nag ku ñuy wax Demba Mbégare. nag ku ñuy wax Demba Mbégare. bàyyi ko Babako. bàyyi ko Babako. indi leetar boo xam ne. indi leetar boo xam ne. benn gis bokku ca. benn gis bokku ca. ah Oustaz Babacar Ndaw moo mujj leetar bi. limal ko boole ko sama papa. boole ko papa. kon foofu sama papa jàngee leetar bi. ba papa jàngee leetar bi. da ko fëggalu. da ko fëggalu. léegi ba mu daajoo yàlla fan laa. te léegi ba mu doon laajee yàlla fan la demee. ko ñëwal. da ko ñëwal. moom bi mu dem. moom bi mu dem. kii ma nga jógee ko Bamako. ko nee na oustaz nuyu na ma. nee na oustaz nuyu na ma. lekkal baa ngi. loolu dara gënu ko. dara gënu ko yéeme. dara gënu ko yéeme. dara gënu ko yéeme. ci taal bi ak sëriñ. guddi na. kon guddi na. jotaay bi métti na jotaay bi métti na. surtout ci mag ñi. surtout ci mag ñi ak borom yitte yi. ak borom yitte yi. waaye liñ bëggoon wax ci. waaye liñ bëggoon wax léegi dara lu ci. li may ñaan yàlla. ndax li ñuy ñaan yàlla. yàlla musal ma ci iñaan. yàlla musal ma ci iñaan. ñaanal yàlla. ودعنا عن كبرك الذي أنقذ كبرك وربنا لك كبرك إنما الفقر جرنا إنما الفقر جرنا إذا بلغت فانتهي وإلى ليلة القدر إنما الناس نافلة القدر ما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف نبي تنزل الملائكة يا ابن ربه من كل أرض سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام في حتى من نادي إلى كفرج في آخر الكتاب وزيت فليعبدوا رب هذا البيت وليأتوا من

إنا نذكر ودخول الجنة وعند الموت بلا حساب ولا حساب ودخول الجنة وعند الموت بلا حساب ولا حساب ودخول الجنة وعند الموت بلا حساب وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الفاتح والقرآن بما سبق لا تبحث بالحق والهدي إلى الصراط المستقيم وعلى آله محمد الدين إن الله ملائكته الملائكة يا أيها الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماء السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكي يزكيهم يتلو عليهم